mbokki taalibe yi ginnaaw bi nu sante yàlla julliwaati Moustapha sallallahu alayhi wa sallam dellu si di ñaanal Serigne Touba Cheikh Mouhamadul Mountakha moom mi toog jataayu Xaadim Rasul di ñaan sunu borom mu yàggal ko fi te wéral ko yàggale yéeneem ak naan yim naan ci liggéeyal ko Cheikh Ahmadou Bamba di delloo ay nuyoo ak ay siyaar Serigne Abass Mbacke mi nga xam tey. moo toog jataay Cheikh Ibrahima Fati borom Darou Mouhty di ñaan suñu borom mu yàggal ko te wéral ko te wéralal ko mbooloo bi ko wër ba lim yéene lépp ci liggéeyal ko maam Thierno Ibra Fati mu defe ko ni ko bëggee ak mbooleem njabootu Cheikh Ibra Fati gépp delloo ay nuyoo ak Serigne Moustapha Absa bi nga xam ne ay moo toog jataay Serigne Modaw Balla suñu borom yàggal ko fi te yeggale yéeneen ci liggéey Cheikh Modaw Balla di ñaanal ak siyaare bu baax alxaaji maam Thierno Mbacké mi nga xam ne tey moo toogee jataayu Serigne Cheikh Balla di ñaan suñu borom mu yàggal ko fi lool te wéral ko te ba li mu yéene lépp ci liggéeyal ko waay juróom wa Serigne Cheikh Awa Balla mu defee ko ni ko bëggee ànd ko ak mboolem ay rakkam yépp di ko ñaanal mboolem njabootu Serigne Cheikh Balla bu góor ak njabootu jigéen yépp di leen koy ñaanal di ko ñaanal mboolem taalibe yépp di sant suñu borom moom mi nu may tawféex may nu kàttan bu ñu mën a fekkee waa bis bii ndax bis bii am na ñoo xam ne fekke woon nañ ko daal te fekke wuñ ko ren am na ñoo xam ne fekke nañ ko waaye xañ ne yàlla dogal ne tëruñu ko ñu sant suñu borom moom mi nu may fekkee bu ànd ak tal bañ man koo teewaat fii ci Touba Pay di bis boo xam ne. kilifa yu baax yooyu ngeen xam ne de tudd naa leen ginnaaw bu sëriñ sii di amee seen ndigal te amee ndigalul way juróom sëriñ Modou Makhtar Mbacke fii la suba teel la fi ñëw ginnaaw amee ndigalul kilifa am ndigalul way juróom sëriñ Modou Makhtar ki la woon bis nga xam ne lu mat ñetti weer wala ñeent. ñu ngi koy waajal donte ne buñ jàllee daaw ba ñu ngi ko doon waajal waaye ku nekk xam ne ne ñetti weer yi nga xam ne moo sos ci sëriñ bi ak taalibe nga xam ne moom la sëriñ Sidi di fii ci dëkk bu sell bi nga xam ne moo di Touba at mu jot nag sëriñ Sidi tànn ci ñi nga xam ne ñoom la bokkal sëriñ Touba bokkal ñoom maam Thierno Ibrahima Fati tudd leen bis bii. xam ngeen ni it woon na ko fii donc yi nga xam ne ñoo nekk ci biir daara yi Serigne Mourou Makhtar te bayti dañu xaram muy bayti yi Serigne Mourou lax saa yi fa nekk am na at moo xam ne ñoom la ko woon ñu def mbooloo mu bari mboolem daara ja kenn desut ak donga yaag mboolem ñi fa nekk ak dëkkee ko wër fekk si Serigne Sidi fii di Touba Pay Pay waaye xam ngeen ne daaw rek tudd na ko tudd na ko rakam bu baax ji toog muy Serigne Abdou Karim Mbacké moom Serigne Mourou Makhtar moo ànd ak délégation bu takku daaw ñëw fi sëriñ bis bi ba ni ko sëriñ bi bëggee lépp sëriñ bi ama ko ci xolam seen kuy ci màggal gi waaye xam ngeen ne sëriñ bi tudde ko jëmm ji toog muy sëriñ Abdou Khoudous moom sëriñ Modou Kara Noreyni sëriñ Abdou Khoudous mii nga xam ne tey moom la sëriñ sii lee bis bi bi sëriñ bi jàppee bis bi ak léegi yitteem jëpp mooy bis bii amul lu bis bi nga xam ne moom la ko sëriñ sii tudde di kilifaam ni magam di léppam waaye ku xam démb xam barki démb xam tey da xam ne Serigne Sidi li mu def war na ko def ndax Serigne Modou Kara mii waajuram waajur Serigne Modou Kara Serigne Ousmane Nouré yi nii fii la nekkoon ci atum Serigne Cheikh Awa Balla kon tey bu Serigne Sidi demee ba ñëw fii Touba Pay Pay taxawal fii bis bu am solo bii tànn dara ci Serigne Modou Kara di sëtu Serigne Ousmane tudde ko ko delloowaat na kon buum te mooy wayga mi ngi nii bi sëriñ bi jàppee màggal geeg léegi mbooleem njabootu sëriñ Modou Kara yi taalibe yi xarit yi wasir yi am na jàmm yëpp am nañoo moom ci màggal gi démb yónnee na fi délégation bu takku yónni fi ay xéewal yu bare bari yoo xam ne mën naa defar màggal gi waaye doyut mu xëyaat ànd ak délégation bu takku bàyyi ko daal mooti te sëriñ Abbas bàyyi ko ci sëriñ Modou Kara no rek ñi way biram ñëw yenn fi ànd ak sëriñ Sidi bis bi mi ngi toog dégg ngeen taalibe yaa liñ fi yëkkati ci sikkur laa kenn xamul toll waaye yemuñu ci sikkur laa mbàkke taalibe yi ngay seen si subaak léegi kër gi doo seen ak koy doo seen ak mbuus doo seen dara kenn teextaluf kenn teextaluf kenn ñëw toppale ma toog kër gi seen rek mooy njaboot gi toog di njabootug sëriñ euh, Abdou Khoudous Mbàkke rëy yi ñu duppee ko jëm ju tedd yoo xam ne tey yaakaar naa buñ delluwaatoon histoire tuuti delloo si jëmm ji bu tudde muy sa yàgg xodóos da ngay xam ne jàmbaar la yoo xam ne bi mu toogee jotaay maam Thierno day di yëtu braqué jëmm ji toog nag waaye béréb duppeeku jëmm gi seen jooju muy sëñ Abdou Khoudoss Mbacke moom seen na fay mi ngi nii toog waaye xam ngeen ne Alaaji Maam Cerno Mbacke mi nga xam ne mooy xalifa sëñ Cheikh Awa Balla man na maa wax ne njabootam kenn desut njabootam kenn desut sëriñ Mouhidine fi la yendu sëriñ Abdoulaye fi la yendu sëñ maam Thierno fi la yendu sëriñ Ateex fi waaye xam ngeen ne léegi bi ñuy waaj a julli timis sëriñ Sidi Mbacke mi taawu El Hadj Maam Thierno ànd na ak sëriñ Moustapha waaye doyut rakam bi baax ñu toog moom sëriñ Sidi muy sëriñ Bassirou mi ngi toog doyu Maam Thierno ak sëriñ Ahmadou ak sëriñ Modou Mahfous kon El Hadj Maam Thierno ku am jamono bu ma koy koy tey njabootu Maam Thierno ñëpp ànd nañu ak sëriñ Sidi ñëw fekk ko fii nga xam ne mooy Touba Pay Pay waaye xam ngeen ne njabootu Serigne Cheikh Awa Balla buñ tuddee rek Serigne Mame Thierno tudd sëñ Modou Makhtar caatum Serigne Cheikh Awa Balla fii la yenn muy Serigne Mame Mor Mbacke mi nga xam ne mooy caatum Serigne Cheikh Awa Balla fii la yenn ci bis bi ànd ko ak Serigne Sidi te kenn ku nekk xam ne ne lépp loo xam ne Serigne Sidi ma nga ji di ci yëngu moo moom ñoo ko ànd ci lépp bépp yëngu ko dégg Serigne Sidi di ko yëngu rek moo xam muy fii ci Touba Pay wala feete Dakar muy journée culturelle mu Serigne Cheikh Awa Balla nga xam ne jëm ju tedd jii moo ko ba nag yi am jot bu ñëwee ñu jàpp ne at mii moo tax ba jàll moo sëñ Mamor at mu jot sëñ Mamor ànd ko moom doyut tey bu ñaar fekk ko fii ci Touba bay bay ñu ngi koy ñaan baax suñu borom mu guddal aw fanam te wéral ko te yeggal yéeneen Serigne Mame Bassirou Mbacké di sotu Serigne Mbacké Kajoor moom it ku xam te sëñ Mourou Makhtar xam nga ko léegi nga fi jógee man maa wax ne fi la juree taksaan ba fi ñu jullee timis kenn ku nekk xam diggam ak sëñ Modou Maxtaar waaye xam diggam ak njabootu sëñ Modou Maxtaar Serigne Cheikh Assa Dieye mu nii toog te bi mu ñëwee rek man na maa wax ne ku mbokkal sëñ Modou Maxtaar ñëw nga ku mbokkal sëñ Modou Maxtaar man na maa wax ne ñëw nga ndax moom mii di sëñ Cheikh Assa Dieye bu dikkee toog soxna maam Fatou Mbacke mom soxna fa Ndiaye mom seigne Modou Mokhtar toog seigne Modou Mokhtar kenen am gisul bu jabar bu jigéen ga ñëw nañ bude jabar bu gor ga ñëw nañ kon mi ngi tok ni ñu koy nuyu di ko bu baax diko ñaanal momit xam ngeen ni taxaway bu am solo mi koy taxaw ci ginnaaw koy jël juróomi Cheikh Mamadou Mokhtar ñu ñaan yàlla mu guddalaw fanam lool taxawaay ba fay taxaw nak diko taxaw ci ndigalu seigne bi waye nak diko ko ci ndigalu ay kilifa mi bokkal seigne Modou Mokhtar yëpp tay yaakaar naa doy ci wéet na ndax seigne Cheikh Assa mu xëy yendu àll ba heure bi jafe na mi ngi tok toog ànd ak nag mboolem donga yi nga xam ne ñooy donga yi laxasaa yi donga yene ca daara ja ca wacca gun donga yene ca yene woon ca daara ja am ngërëmu sëriñ Mourou Maxtaar delluwaat ci seen i waajur di liggéey yar seen i waajur ñoom ñëpp fi lañ ñëw yendu ànd ak sëriñ Sidi ndax ñoom day démb ak bërki démb la woon ak sëriñ Sidi ñoom sëriñ Sidi bokkoon nekk ca ja sëriñ Sidi laxasaa yi ñu laxasaa yi ñu ànd liggéey Cheikh Mamadou Maxtaar ak sëriñ Mourou Maxtaar yëpp sëriñ bi gërëm leen jox leen ndigal ñu delluwaat seen i waajur ngir liggéey yar seen waajur yi nga xam ne ñoo leen tegal ci loxo Cheikh moom di waxtaan bàyyi nañ seen i yitte yi ñu jàppoon yëpp ñëw fii ci Touba Faye Faye ànd ak sëriñ si bis bi ñoom ñu ngi leen di nuyu ñoom ñëpp di leen siyaar di leen ndokkeel Mbacke seereel la waa dëkk bi mboolem ñi nga xam ne ñoom nga bokkal kenn desul ci dëkk bi yi nga xam ne mooy Faye Faye ak dëkk yi wër Faye Faye waaye xam ngeen ne Serigne Moustapha Sylla mi ngi ñuy toog moom it bis bii am mu jot ko wutee jëmm jeetoo muy sëriñ Modou Mamou Niang ku xam sëriñ sii xam nga ko muy ku baax di as gor di jàpp yoo xam ne du bàyyi lépp lu sëriñ sii nekk mu nekk ci ànd koog moom bàyyi ay yitteem yëpp fi la yenn di ci ànd ak sëriñ bi bés bi moom it ñu ngi koy siyaare di ko ñaanal journée culturelle bi ñuy def kenn gaaw kenn ku nekk xam nga ne journée culturelle yombul ci ay wàccaay ak waajal ko. ak fexe ba bis ba jag lépp moom sëñ si koy man naa ne loo xam ne sëriñ nekk na ja bàyyi na ay yitteem dikk ànd ko moom waaye di sëpp ci sëriñ Modou Mamou Niang sëriñ Modou Mamou Niang ku xam histoire yoon wi xam nga ne historien la bi la lim bind ci ay téere yoo xam ne da ko bind Seexul Xadim waaye ko sëriñ Touba kenn xamuñu toll nekkoon jum yoo xam ne digg ma Seex Abdou Lahad képp ko werante ni sëñ Mour Mamoune Niang loo xamul ci yoon wi dana laaj ba muy gàmmu ndaw sëñ Mour Mamoune Niang mooy mooy maamam ma nga ne toog waaye bokkaat ak Cheikh Mouhamadou Fadal mooy bàyyi mooy bàyyi bokk daay bàyyi waaye yëmu te bokkaat ak Cheikh Mouhamadou Fadal Mbacké kon mi ngi toog kon ñu ngi koy nuyu di ko siyaar di ko dalal ak jàmm di ko wax ne taxawaay bi nga taxawee sëriñ bi taalibe xam nañ ko njabootu sëriñ Mourou Matar gi xam nañ ko. donga yi xam nañ ko waaye Touba Faye Faye ji xam nañ ko kon sëñ Mourou ñu ngi ñaan yàlla mu guddal soo fan te wéral la te yeggal sa yéene ba li nga ñëw lépp te ànd koog sëriñ si di liggéeyal ko sëriñ Touba ak yàlla na yàlla may noo ko defee ci kàttan ak suñu borom waaye xam ngeen ne mi ngi foog ak sëriñ Fallou Gallas Ndiaye waaye xam ngeen ne waxtu wi daaw boo gisee ba ne màggal gi am na ñoo xam ne fekkee woon nañ ko waaye fekkuñ ko ren te àdduna moo loolu ñoo ànd loolu sëñ Mbay Jaxate doo ko ne àdduna baaxul ci ku mu wéetal def ku lu baaxul pour génn nagul àdduna day wéy sa dund day wéy yow it dangay jëmm jii di Alioune Badara Mbuub mii waxtu wi daaw ñoo bokkoon bis bi mu yëkkati bi kàddu yu am solo ñu jëlee kàddu rek ñëpp xam ne ne jataay bi soppeeku na doonoon koo xam ne dëkk bi rek ko waaye sëriñ Sidi may ñoroon ko lool lu sëriñ Sidi ma sa nekk nekk na ci ànd koog sëriñ Sidi fu sëriñ Sidi ma sa woote bàyyi na yitteem yëpp dikk ànd ak sëriñ Sidi tey lii la suñu borom yóbbu ko ca kanam dëgg ga ñu ñaan yàlla mu yokk ay leeram gisee nee ñu ko boolee ca fata bee ànde ko am na sëriñ bii woote bis moo gore moo tax ngeen gis ko nii mu am na sëriñ bi sëñ Sidi féete ko nii sëñ Modou Moussa nekk ñu sax mooy jëmm ji toog sëñ Aliou Badara na jàng fukki nag laa si ak benn yéene ko yoon bi ndax jëmu jii kenn la woon ci bis bii kenn la woon ci bis bii nga xam ne sëñ si daana ko def fii ci bay bay kon suñu xaar yi eh, daataa ñu dugg ci cérémonie bi ma lay daal di bàyyee kàddu ji sëñ moom dama la koy bàyyee ko defee nga mën ma cee ñëwal mais ñi toog di kenn ci yoon yi moom it xam naa suñu xaar yi li ma ci bëgg a lépp. boo jëlee kàddu gi dañ ci mën a egsi su ko defee ma bàyyi la kàddu gi ba noppee nag ñu soog a nag sóobu ci li nga xam ne mooy sëriñ Mounaf Seyni waaye sëriñ bi ñu seeree la soxna yi toog muy soxna Fatou Seye mii di kenn ci sëriñ sii bi di ko xam ne yaakaar naa nun ñii di ay donga jaar ci loxol sëriñ Mourou Makhtar ba sëriñ bi gërëm ñu ak ñi nga xam ne ñi ngi ci loxol sëriñ Mourou Makhtar te wàccagum tax sëriñ bi du wàcce kenn day sensibiliser rek. waaye sëñ bi wàcciwul kenn ñun ñëpp sëñ bi dañoo changé am liggéey rek ka ne woon ci tool yi di bay da kaa ne di bay sëñ bi dañu kaay bàyyi mbay mi di dem ci leneen nekk ci lii waaye kenn wàccu ndax murit du wàcc waaye soxna Fatou Seye mii ku xam sëriñ Sidi xam nga ko waaye ak mbaaxam ak yaatoom ak wayefam ak bëgg njabootu sëñ Mourou Maxtaar bëgg taalibe sëñ Mourou Maxtaar ku baax la man nag yàlla rek tax may seere li may wax yàlla rek laa koy seere su ma gisutoon melokaan woowu ak jikko jooju du ma ko wax waaye li ma gis ci moom ku mën a téye nit la ku yaatu la ku noppi la ku maanu la te lu am mën na ko bokk ñëpp mi ngi nii toog bis bii sëriñ si di def fii Touba Baye Baye di ko def fee ca Ndakaaru bu sona bi alalam du ko fekk lu mu am dana ko ci def na xam nga ne bis bi la alalam ko ak mbokk yi mbokk nekk muur yëpp ak mbokk Dakar yëpp ñu ànd ak moom ba màggat ba bisu euh, Dakar bi lu ko sëñ si di bëggee mu amee ko ni waaye doy tey jii ñu ñu waat ci Baye Baye ba mu xëyee léegi ñu ngi nii doog te bi mu dikkee mënoon naa solu am na ñu ko mën a toogal am na ñu ko mën a raasal am na ñu ko mën a bareel waaye déedéet lii tax a jariñ ci yoon yi mooy ñàkk bi mu dikkee daa ñàkk soxla jaar lu am da koo ñàkk moo tax moom xam na ne lii tax a jariñu ëllëg rek mooy aw ñàkk kon ñoo ngi koy ñaanal suñu borom mu guddal aw fanam te wéral ko waaye te wéral ko ñu ne wër ba yu liggéey mën ànd yow kon maa ngi tuub nag dama doon seet rek yàlla rek tax xam ne loolu ak taxawaayam la xam loolu jikkoom la te nag nit ki bu defee lu baax nga wax ko ba ña nga xam ne xañ ne seen postage ak seen yitte ak seen njàmbaar egul foofa ñu mën ko roy ndax royukaay yaa ngi fi kon nañu nañ nañ ko ñaan yàlla mu guddal aw fan te wéral ko day gër yéeneen kon suñu xaar bisimilah. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. maa ngi nuyu ñu fi taw ñëpp. ci ndigalul sëriñ Sidi Mbacke moom sëriñ Mame Thierno mi fi bàyyi ko léegi. kàddu yi may jottali ma da ko jottali ci turam ak ci ndigalam ndax léegi bi fi jógee man ak sëñ Sidi daf wax ne ma nga toog fii fekk ma am fu ma waroon a dem fu bari bëgg faa dem moo jógee fii muy gàmm yu xew ci tund wi muy tàbbi ak yeneen dëkk waaye mu wax ma ne ma na nga toog maa ngi doon ñaan sax sëñ Sidi waaye eh, sëñ Sidi ne ko jox ko ndigal ndax murit moom bu jotee ndigal faaw mu jëfe suñ si ne ma na nga toog waaye nag sama xel dal bu baax bi nga xamante ni sëñ maam Thierno sama rakk ñëw na ndax sëñ si moom moo ñu yëlif ñun ñëpp waaye fi nekk ak sëñ Abdou Khoudous mii toog ñoom ñëpp samay rakk lañ ak bu sëñ Thierno ñëwee nag moom moo ma fi nekkal moo fi nekkal sëñ Sidi moo fi nekkal sëñ maam Thierno ndax ñun njabootu sëñ maam Thierno. li mu ñu euh, yàlla teg na ko ci yoon moo di ñun ñëpp benn lañ amul kenn ci ñun koo xam ne danga xëy di yendu foo xam ne wala nga jëm foo xam ne sëriñ bi fa mu nekk xamu ko fee mu nekk ci tuwaaruf tey xam na ni fii nu toog man mii ak sëñ Thierno noo nekk ci jotaay bi kon nag sëñ Thierno fu mu nekk rek man la fa nekkal. maa ngi nuyu nag ñi fi teew ñëpp muy njabootu Serigne Touba gi di nuyu Serigne Sidi mi nga xam ne moo wootee bis bi di ko sant bu baax di ko gërëm ci lii mu def ndax bis moom boo ko wootee fu mel nii mooy yaa ngi dundal yoon wi yaa ngi def li nga xamante ni moom la Serigne Cheikh Balla sa maam ju baax ja doon def ndax Serigne Cheikh Awa Balla radiyallahu anhu doon def bu ñu gàmm moo bi dunda bi ba noppi mu jógal boppam dem Mbaba Galaas bu fa jógee dem Tiwaawan bu fa jógee ñëw Bambey loolu ñëpp miinu nañ ko sëñ Cheikh loolu bi fi jógee sëñ Maam Cerno yokk na ci bis yu bari muy pekkees gi di mel na Daxaar gi doon def barki démb di waajal pekkees le 23 mars ñu ñaan mbokki julli yëpp ñu waajal bés boobu nga xam ne sëñ Cerno moo ko def fii ci pekkees le 23 mars bii lay doon sëñ Maam Cerno dana ko tawee si na mu ko daa tawee incha allahu taala kon bu sëñ Sidi ñëwee fii ci pay pay di fi def bis bu mel nii njabootu sëriñ Maam Cerno gépp njabootu sëñ Cheikh Abal gépp siggal na leen nit nag bu sa mbokk defee lu baax boo toogee lu kàddu yu gàtt gàtt war nga ko sant ci kanam mbooloo gërëm ko sëñ Sidi bokk na ci ñi nga xamee ne siggal leen kër seen Cheikh Abal ndax yoon wi nga xamante ni moom la sëñ Cheikh Abal nekkoon. di ci liggéeyal borom Daaru Muxti di ci liggéeyal sëñ Touba jóge fi ak njabootum di ko wéyal sëñ Maam Cerno mi ko fi leen yàlla fi yàgg lool te ànd ak wér ak sëñ bi nga xam ne mooy jëriñam ak mbooleem ay rakkam loolee bu sëñ si di ñëwee fii def fi kër nekk ci kanam taalibe yi di leen gindi di leen digal di leen tere def lu neex sëñ Maam def lu neex sëñ Mourou Mokhtar kon sunu sag la nun ñii di kilifaam jërëjëf. sigal nañu sagal nañu ci lépp noonu la koy defee ca Ndakaaru def fa journée culturelle Serigne Cheikh Awa Balla kon noo ngi koy sant bu baax di nuyu mboolem ñi fi teew di ay rakam di Serigne Cheikh Sadji ak Serigne Abdoul Karim ak mboolem njabootu Serigne Touba gi maa ngi nuyu Serigne Ablaye Seck di sunu wëlëre bu baax di sunu xarit bu yàgg yàgg yàgg rawatina ni ko ki doon wax waxi léegi moo xam ne Serigne Touba moom yàllaa ko defal loo xam ne defalu ko kenn mel ko xam ne ko kenn mu doyloo ko jël boppam jox ko loolu nag sëñ Ablaye bu ci am benn looy eh, la ma la waxoon rek keroog ba ma la jëlee téléphone man ak sëñ Moustapha sëñ Tuubaa moom yàlla ci ci boppam mooy def ci coobareem lu ko neex kenn ku ne defal na lu baax fu ne def na lu fa lu baax waaye li mu defal sëñ Tuubaa defalu ko kenn te dootu ko defal kenn loolu mu wax ne illa xaarallahu maa lam yakuni wala yakunu abadan li mumkini du wax yi yoo xam ne da ko wax rek ngir bëgg lu neex rek njabootam yàlla ko ko defal digal ko mu wax ko moo tax mu wax ko kon ànd ak sëñ Tuubaa jërul complexe jërul rus fii laa bokk ba du ko jox sa bopp sëñ Tuubaa foo mën a bokk am na ñu bokk fu ko gën a kawe am na ñu am cër ci yàlla bu ko gën a kawe ñu jox ko seen kon jërul tiit jërul dara te kenn du ànd ak moom kenn nit la ñëwee fii ci àdduna waxuma alaaxira ndax alaaxira moom ba fi yonent bi sallallahu alayhi wasallam jógee ba léegi ay xut bu samaan di fi nekk ay wàll yu di fi nekk nit ñu baax di fi nekk mosunoo dégg mosunoo dégg kenn gis koo xam ne wax nga ci lu daal xel lu leer nit ñi ku dul sëñ Tuubaa te liñ ci wax moom lu man la dafa góor goo xamante ni nii bi fi sëñ Mor nekkee daf ko woo ba mu ñëw moom sëñ Tuubaa mook borom daal moxti ci Mbàkke Kajoor gii ne leen dem leen ndax kër gi dara nekku fi kon nag jóg leen toogaay amatu sëñ Tuubaa jóg ngàbbu kaamil bu mu ci loxoom ànd ak borom daaru di wër di jaay kaamil ngir bëgg lu ñu di jox ko suñu morom sëñ fu ñu dem am na ñoo xam ne danañ soxla kaamil waaye yoruñu daal ndax réew mi dara fi ñu wër ba Kajoor jeex ñu wër bool ba mu jeex bañ dem siin gis ngeen gooru séeréer gu yor nag yu bari borom daaru ne ko nun de kii ma àndal sama mag danoo bokk benn baay sunu waaye danu moonu yebal danoo bëgg lu ñu yóbbu ci kër ga waaye ab kaamil rek lañ yor boo xam ne sama mag ji moo ko bind ci loxoom dañ góor gi ne ko man de xamoon dara alxuraan waaye xam naa sama ji ku baax la am na lu ma bëgg de boo ko mënee wax mu ñaanal ma ko danaa leen defal li ngeen bëgg mu ne ko lu ma doon mu ne ko gudd fan lool laa bëgg sama alal ji bari lool te barkeel te bu ma daal ne ko loolu mën na ko mu ne ko ah mu ne ko demal wax ko ko mu del si wax ko sëñ Tuubaa ne ko moom dañ ne naan dafa am yàtt yu mu bëgg nga ñaanal ko daal di koy wax sëñ bi ne ko incha ne ko des na ko ñaanal. borom daal mu dellu si wax ko ko mu góor gi ne ko kon nag léegi tànn leen yéenay tànn seen bopp xabban bu leen neex ngeen jël xabban mooy nag yu gën a rëy ci nag yi moo ëpp sax yëkk mu wax ko Sëñ Tuubaa Sëñ Tuubaa ne ko nekkoon na nu dimbaliwaat ndax maa yow doo nga ànd xamul dara ci nag mënul dara ci nag nanu boole ko ko dàqal ba sànq ko sànqal nu ko nu jox nu xaalis bi mu dëpp ñibbisi borom daal wax ko ko mu ne ko mën naa loolu waaye yéen tànnal seen bopp nag wu leen neex nag ñu tànn mu daal leen booleen ku leen ko dàqal ba kooko ñëw ci euh, luuma jaay leen yëkk jox leen xaalis bi ñu ñëw mbàkke leen ñu moomu dëpp sëñ bi jóge fi dem ci géej gi ba dellu si ba dem gànnaar dem jolof jóge fi ñëw jaare góor gi jóge siin ñëw bëgg a gis sëñ boobu sëñ tuwaa gis ko yóbbu mu yàgg fi lool waaw bu joxe ne wax leen ko ko rek bu ngeen ko ko waxee rek danaa ko gis ñuy jottali tur bi ba maa sëñ bi sëñ bi ne ko woo mu ñëw bañ ko woo mu ñëw bi mu duggee kees gi rek jub sëñ bi sëñ bi ne ko fàttewu mu egg si nuyoo toog ko na woon naka mu ci yooyu nga doon sàkku mu ne ko ah fi mu ni wax yow de am naa téeméeraat te siin laa doxee ba fii te bopp sax méttiwu dara méttiwu suñu tubaab léegi nu jur nga def mu ne ko jur gi ko moom rek laa ci xam waaye xamu nu mu toll. mu ne ko lu ca ko xanaa faatu dem àjjana loolu it ma ci a fàtte ak sàmm ak jumbar sax yooyu yat aw ma yat aw ma ci li ci des it noonu lay amee ndax man yat aw ma ci morom ñàkk fàtte ak sàmm wala ak jumbar sax yooyu yat aw ci morom. kooku nag mooy sunu sëriñ kon sëriñ laay na sa ko dénk sunu mbokki taalibe bi moo di nanu rafetal suñu parce que sëriñ ci morom fan yi ñu génn rek fan yi ñu génn rek ñu bëree bari ci réew ñi nga xam ne xamuñu sëriñ Tuubaa ba gëmuñu ko seen xel tiitoon nañ lool ñu jax lu ne waaye di ko xalaat lu ne waaye di ko wax lu ne nit jàpp ne dana am ci réew mi waaye ñi gëm Sëñ Tuubaa te xam ko xamoon nañ ne jàmm dong moo fi am waaw dama toogal sama sëriñ ba sëñ maam Thierno ay fan yu néew ci ginnaaw am ko koy wax sëñ bi ne ko réew mi a fi ñi xalaatu nañ ko ko def na lu ne leen tey suba dem sëñ Abdou nee na woon 89 ca jamonoy xew-xewi naar ku ëmb saw ay jëmee ko Sénégal gii du yegg si mukk faaw ci sa kaw lay te loolu man mii wax a yéen seere laa ci ndax 89 ba événement yi am ma ma fekk ca gànnaar maag sëñ Mouhidine mii fi jóge léegi sama mag ak njabootu sëñ Tuubaa bu bëri boobu suñ maam Thierno ma nga ci Italie waaye bañ ko ko waxee def ne du ma téléphoné du ma fa yónnee du ma fa def dara ndax sëti Thierno Birahim ña nga fa sëti sëñ Tuubaa nga fa sëñ Tuubaa moo waxoon Thierno ne ko am nañ sax bu lakkee da Tuubaa nan la ko daal mos sëñ sëñ Tuubaa yoo xam bu leen dara jotul sama doom yoo xam ne dara du leen de waaw. ñun dana toog naar bi nu dëkkoon ci biir këram naar bu xaw ma curru la waaye bis bi gën a métti dafa ñëw taxaw nenu fii ma toog maag sama doom yëpp bu balaa kenn egg si nun daan daay ba jeex waaye yéen kenn du leen laal kenn du leen laal naar bu xaw curru kon sëñ Tuubaa amul morom na ngeen dalal seen xel te doyloo sëñ Tuubaa te mooy ci moom te xam ne du kenn kenn du moom kenn du ko boole kenn yi réew mi jërul tiit jërul këkkëri jërul xalaat kenn wala xalaat leen nun daal li am solo ci nun nan loolu ay taalibe yu déglu ndigal te di ko dégg te di ko jëfe lu xew nan nekk fa sëñ ba te doyloo sëñ bi lu sëñ bi wax nu def ko lu mu waxul nu bañ caa dugg loolu rek moo war waaye jërul tiit jërul coow jërul kër kër maa ngi yemale foofu samay kàddu di sant ñëpp di nuyu sunu waajur bu baax wi toog di soxna yaa xam bëj moo koy nuyu bu baax di ko sant di ko gërëm ndax moom day ku jeex tàkkale ci kër sunu waajur sëñ Mouhamadul Mokhtar kon yàlla yàlla guddal aw fanam damay ko ak wér di feddali sunu kóllëre ak moom ak sunu mbokk gi dox sunu diggante ak moom tam xam ko bu baax jàpp ko yàgg na ko wax man ak seen sidi mi ak seen sidi mbàkki mi fi jóge loolu noo koy sàmm bu baax soxna yaa di ko feddali bu baax a baax di nuyu mboolem ñu fi teew soxna Aminata Fall noo koy nuyu ak borom këram Si di ko xamante ni taxawaayam ci kër sëñ sëñ Mourou Mokhtar ak sëñ Mame Thierno benn taxawaay féetu ko ko yàlla dimbali te barkeel yëngutoom bi yëpp te ko tawfeex ak tey si di baax sunu soxna see toog di soxna Fatou ndax moom itam nit bu la defee ne lu baax bàyyi bokkam toogee na ko wax moo koy sant bu baax di ko gërëm ndax boo fi ñëwee ba tey ci suñ loxo waxoon naa ko fii daaw li fañ ko yemloo fa la yem la mu war a def lay def te lépp loo xam ne xam ne ne suñu bëgg la suba ba ngoon ma nga ca loolu kon yàlla na ko yàlla barkeel fii te li fi am yàlla na ci yàlla ko barke maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di jégalu dama am yeneen ndigal yoo xamante ne war naa ko doxi muy dëkk bu ñuy wax Tàbbi Fall fii dañuy gàmm te sëriñ bi yebal moom fa ma faa dem ak yeneen da kon damay toog ba jataay bi jeex waaye maa ngi jégalu ñu fi nekk ñëpp ñu may ba rek seen sidi kon ndigal moom buñ ko xasee jëf rek waa dëkk bi ñu ngi leen di ñaanal baax waaye ñu ngi sàkku ñëpp ñu ñaanal Aliou Mbow yàlla yàlla jéggal ko téyam ko yéen ko yàlla tabal fi ñaanal yi si keroog bi muy génne àdduna dëkk bii bi sëriñ bi fettal muy mireen daxaar fa la génn àdduna waaye am na ci mu yaakaar bu baax a baax ndax ab jullit xaqan la woon murid sala maa ngi wax sëñ Thierno mais rek keroog bi mu nelawee bi ma ko sëñ Thierno waxee mu metti ma lool ndax mu dund ñetti fan rek danoo bokk nekk gàddeel booba Thierno Diop mi la àndal mu wax fa ju rafet di nit baax koo xam ne dafa bëggoon sëñ Thierno mii ak sëñ Sidi yi te ñooñu suñuy rakk leen suñu lépp leen ku leen bëgg nun nii lii la bëgg ku leen jàpp nun nga jàpp kon noo ngi ñaan ñaan googu ñu ko doon ñaanal yal na ko yàlla nangu yal na ko yàlla tàbbal fii jannatil si li nga wax ci dëkk bii na seen xel bu baax ñu ngi leen di ñaanal bu baax waaye li ma leen di dénk mooy na ngeen jàpp ci seen si bu baax da ngeen xam ne sëñ Tuubaa yi loolu ma leen wax amul morom ci àdduna tudd ko kon loo am moom nañ ci jàpp suuf ki ñaan ngi mooy na ngeen jàpp sëñ si bu baax xoole ko muy seenum sëñ Tuubaa muy seenum borom daaru waxtu sëñ Cheikh Obal ci yéen ak sëñ Maam Cheikh ak sëñ Mokhtar bu ngeen ko defee da ngeen xam ne sëñ Tuubaa loo ci am tëyel dana la jëriñ fii ci àdduna dana dana la jëriñ ci àllaxe dëkk gii mu dëkk fii ak yéen de yéen ñiy dox ci kaw suuf yéen a koy warante waaye ñi dëkk ci dëkk bi ñoom dana àllaxe wala dim ndax sëñ Tuubaa dana du dara bu baax te doy loo ko te teg ko seen kanam te lépp lu mu ne ngeen nekk ci ak xam ne sëñ Tuubaa rek comme lu leen nag loo ci am da koy téye ak sa fukki loxo maa ngi sant ñëpp maa ngi gërëm ñëpp maa ngi jégalu bu baax di ñaan ñu jégal ma rek sëñ si di kon asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu jërëjëf Mbacke man de li nga wax léegi rek ci laa lay delloo si sant ñaanal la ci Mbacke amin nu mu leen ñaan leen amin sa waajur wa dey allahumma salli ala sayyidina wa mawlana muhammadin nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima yokk rajo yi yokk rajo yi yokk mbokk yi fi toog ñoo ngi leen di nuyu kenn ku ne ci turam ak santam di siyaar sunu mag sunu sëriñ sëriñ Sidi Mbacke ak rakkam sëriñ Thierno Mbacke bu alhaji maam Thierno maire Darou Manane kàddu yi nag kàddu yi ndigal rek la ne baaxoo wuñ sax di wax ci yu mel nii waaye nag dat yi murit moom ndigal la sant kon nag bu ñu joxee ndigal duñ man lu wax ci lañ ci xam lañ ci xamul ñu noppi ci ñoo ngi jéggulu bu baax di siyaar suñu waajur soxna Yaaxam ak euh, bàjjoon soxna si ak euh, soxna Aminta ak ñi àndal ñëpp bu ma ci boolewul soxna Fatou dama ragal suñ sii di mere moom di siyaar kon baax soxna Fatou yi tamit <laughs> sëñ bi dina jot li kàddu Serigne Modou Makhtar ak waa Kër Serigne Modou Makhtar gépp ci turu Serigne Khalil Mbacke mi nga xamante ni moo mag ci doomu sëñ Modou Mokhtar yi ñu ñëw fi tey ànd ak Serigne Abdoul Karim Mbacke mii di sama rakk Serigne seex Ibrahima Fall mi ngi fi mu Moustapha Mbacke ñoom ñëpp di waa kër sëñ bi dagg lépp lu ñuy def ñëw bokk ak yow bis bi waaye nag Mbacke bis bi moom dafa ala dawme ba noppi ndax ku xam Cheikh Mouhamadoul Mokhtar ak état bi mu toll ak jub ni mu ko jafee ak événement yu ëpp yu gën a am solo yu xew yëpp na ne li sëñ Modou Maxtaar daan wax ne bis bi ma ganee àddina ci lañ tàkkal sëñ Cheikh Awa Balla garaatub waliyu xutbul euh, garaatub waliyu kam euh, awli kamaanu awliya bis boobu lañ ko ko takkal moo waral tàngoor yi mën naa bëri lool waaye bu ma ngegenoo sama loxum ndeyjoor damay fas si sama xol ne képp ku ma mos a tooñ ak loo ma sa def lu ma metti metti jéggal na la ko te yalla rek ta ak Serigne Touba yow it seen na nag nga nek man xamna la bu baax tàngoor yi mën naa mett lool ak xata xata ji waaye xol bi boko ko ba ci biir da weex tam lu baax rek la ñëwee nit ñi mooy lu ma xam ci man mo waral ngay jël sa rak yi nga xam ne yaa leen mag fuuf di leen sagal di leen tudde bi ci melni tay na nga def ko fa ko wara a ndax ku ne xam ne ne Seydina Ousmane Noreyni ni mu meloon ci kër Serigne Cheikh Awa Balla mu nekkoon ak Serigne Cheikh Awa Balla ba xëy am li mu am lépp yàlla dogal soxna Fajjar keroog bi ñu ko joxee Serigne Cheikh Awa Balla mu ñëw ki fi njëkk am Serigne Ousmane Noreyni la ko Serigne Cheikh Awa Balla tuddee muy magi Serigne Modou Makhtar kon kooku bu yàlla dogalee tey jii nga ñëwaat tudde bi Serigne Abdou Khoudoss Mbacke damaa def li la war ta ku ne xam na digënde Cheikh Ahmadou Kara Mbacke ni ak Serigne Modou Makhtar ñom ñaar du ñaar ben rek la bu bu yàggoo rek gis ngeen serigne bi toog ba benn bëccëg nam ko gis tax dafa juk taal auto dem ba kërëm seeti ko Mermoz e, fa e, e, vidéo ak ku ne xam na ne wàllu yu kaamil la te suñ mu aw bal la sama xarit la daan wooy soxna yaa xam yàlla dogal mu ànd fa ak bi sëñ bi ne ko sa xarit baa ngi nii dama bëgg nga ñaanal ko mu daan ne ko dégg naa la yàlla dogal suñ mu aw bal toog ba suñ bi yaakaar ne ko fàtte mu fekkaat ko fi mu nekk waxaat ko ko suñ mu aw bal ne ko naa la toogaat daal demaat suñ bi toog ba yaakaar ne mu dellu fàttaliwaat ko ko mu ne dégg naa li nga wax waaye lu mel ne lii nga ñaanu daa am ñu ma fi mas yàlla may na leen njaboot waaye fekkiwul njariñam te moom mii di soxna yaa xam day sama xarit di sama féete ma bëgg mu am njaboot te fekki seen njariñ sëñ siidee ngi nii soxna baalee nga Amérique soxna xarit Mbàkke nga Amérique kon yaa xam dalal sa xel te xam ne jiwee góor bi ndax ñaan wàll yu nga am te si mu daw baan wax dëgg la loolu mooy li wér moom nii bi mu gane àddina sëñ Modou Maxtaar ñëw ci sëriñ Cheikh Awa ndax ñoom dañ daan jàngale dem nañ ba li ñuy nekk nekk mag doom jun a am dañuy laaj ndigal ndigal li ñu leen jox la ñuy wéy nekkoon kat soxna yaa xam kat dafa am gone lu mu doon mu ne ko góor la sëñ Cheikh Awa ko tuddee moom mu daal ne ko ah Mbacke kat dama la koy jaay ndax kat tudde woon naa la Cheikh Awa Balla mi bokk mais ndayet bàyyi soxna Ndiaye nekkoon way juróom mu daal ne ko yaa sob koy jaayee mu ne ko kat kooku daa génn adduna bëgg ma nag di la tuddewaat koo xam day teel a génn àddina sëñ Cheikh Obal ne ko defal li ma la wax dina dund te dina fi yàgg te dina am barke sëñ Sidi li ma la wax xam nga ko baax fi nga jaar bëri na waaye ñaani wàllu yooyu ci sëñ Mourou Obal Cheikh Obal moo la fi ba fi mu ne kon loolu rafetal njort bu baax Seydou الرجال دهر الخلا والنمريت دار ku sopp borom daal mu xees xawa balaa magal ba yi Cheikh Modou Makhtar Mbacké yaram ba fa daaru doy na xeeti xar baax wolof lu ngeen añaan añaan ne moo baax maa jëm na faati sant lil falaayi loolu duñ ko fàtte xoo balla sañ ci tuubaaroom sellal ko muri di waaju ñëw boog ku sopp Cheikh xoo balla jógal taxaw ca ko màggal bàyyi Cheikh Modou Makhtar Mbacké du ngeen màggal lii Cheikh Fallou sa jéegi Cheikh Awa Balla wolof ngeen añaan añaan ne moo waawaan si teeru Abakar fa nu naa Ndakaaroo di woo murid yi ñëpp ñëpp waaru mu daal di si baa bay ci fa kër tanaa murid na ngeen bay amoon na kër mbaaba daaraas di màggal am na kër fu am na kër fa Njurbel ay waay Cheikh a baax Cheikh aw bala baax moo safoon murid yi ci aw meloom ci aw jikkoom xarit yi Everybody mooy siidi gaawaan seexu ko doon ay mayam di baawaan seex ikkam la daa waxtaane moo di jaaram xar baax la daa tëggoon néeléer ko àllam wàcc nga jaajëf bala ay saak saañu loo def def ko ci faj aañu fiirul ka xajal foorul xiini may wax ci say jaroo léppul layini dina muhammad wa alihi wa sahbihi wa xadimihi ajmain assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuh maa ngi nuyu mbooloo mépp di njëkk jéeglu nag sëriñ Sidi bu baax ndax euh, bu sëriñ Basiru waxee rek kàddu sëñ maam Cerno genn la kàddu kër genn la yow képp boo waxoon wala sëñ Cheikh as asiyee wax ñu ñëpp wax na kon sa mbaax la rek ak sa bëgg lu rafet moo tax nga bëgg ñoo jox càddu waaye ñun bis bi liñ doon xam nañ ko te xam nga ko te yàlla xam ko te ñaar ñi ko séq bu leen yàlla ñettali bu ñu xasee xam keneen ku umpale amul solo te leen séq yàlla xam maa ngi ziar ñëpp te jiital di soxna yaa nga xam ne xam na lu bari sama dégg de sëriñ Sidi bu baax a baax man nañ seere waax baax ak mboolem mbokk mi tedd yi fi nekk bala maa ñëw ci sama mbokk yi sax ma nuyu soxna Fatou Seye ba pare. ndax xam naa lu ñu naqari ñun ñëpp ndax ñun ñëpp lu neex suñu kilifa la niwu te sëñ Sidi mooy suñu kilifa ci jotaay bi kon soxna ñu ngi ziar di ko seere nag loo xam ne dëgg dëgg tooñ sëriñ Sidi taxul bu baax la nit ku dal la nit ku dul soppeeku la man duñu gisee lu bëri ci jëmm ndax sama temps mais dinañ gisee lu bëri ndax fu ma tollu maa ngi koy topp kon yàlla ko yàlla jàppale barki borom bu baax sëriñ Sidi ñu ngi lay nuyu bu baax jiireetu nuyoo bi suñu kilifa gi fi yàgg te ak mbaaxam ak woyofam rek moo ko waral muy sëñ Mourou Mokhtar yàlla na ko fi yàlla yàggal di wéral ko ak kilifaam ak boole may rakkam ak sang si fi toog ba di ki nga dara jaale bis bi tamit muy sëñ Abdou Khoudoss sama rakki bopp yi di sëñ Cheikh ak sëñ Mourou maam mi nga xam ne.

kon ñun ñëpp ñu ngi leen fii bala maa sori di jéglu waa dëkk bi ndax dama daa ñëw wër dëkk bépp kër bu ne ma dugg fa tey man bëgg na dem dellusiwaat far dem am ngànt waaye ñu ngi jël ziar bépp di si di di la la bu baax murit booy seen mbàkke mbàkke booy seen kilifa na pas-pas ci sa pas ci liggéeyal sëriñ bu baax yàlla na ko yàlla mu mott yi barkeb sëriñ barkeb sëriñ Tuubaa damay faral di wax mu ne di seenu gëm sëriñ Tuubaa dafa àgg ci ne kenn ku ne li yéene la nga yéene defal sëriñ Tuubaa doo ko waxtaane ndax bëggoo kenn jiitu la ci loolu ñun ñëpp fa la suñu pas-pas ak moo tax ma ne kenn ku ne sa pas-pas yàlla na ko yàlla mott yi bu baax baax di fàttali sama wëllëre ak yow bu baax ndax mbokk gi mu defoo ko def mu ko yàlla moo ko def di parfaité mbokk la ni doon bu ñaawee mbokk lay doon waaye mos ñaaw ndokk mbàkke ndax yàgg na ndax ñoo bokkoon daara dama koy faral di tooñ ne ko li nga def ci man lépp day bari na lool danaa seet nag ba xam luñ ci a def wala wala luñ ci war waaye jippi daaray Baye Baba yàgg na maa noggatu lool léegi nag Mbàkke xam na ne sëriñ li ngeen wax nit ku baax nit ku loolu laa mën a seere ñoom xam ci moom yàgg na lool ndax ay xarit du fu nu rek man man ak sëriñ si di micro ñu ne ngàcc loolu xarit a ko ndax du ma neexal du ma ko neexal mais ku ne yaay wuraat sa morom ba ba xam ne <laughs> boole. noonu naa ne li ma bëgg a wax foofu rek mooy ci dëgg lañ su ma ko waree wax dëgg dama koy wax su ma waree wax dëgg dama koy yoo xam ne maanaam xarit yoo xam ne dañ ne wala huit ans ngeen ànd ak foofu naxante nekk te soxna yaa xam ne fekk na fu nekk France maa ngi si limi kon loolu maa ngi koy seeru adduna bépp. di ci am mbégte di ci sant yàlla ndax lépp nag baaxu suñu borom la di sant nag waa dëkk bi bu baax a baax a baax a baax ci man ni ngeen taxawu sëriñ si ndax ni ko waxkat yi di waxee rek aw aktan boo ca teralee kenn terale ñëpp kon bu ngeen jàppee sëriñ si fonk ko jox ko cëram jàppe ko Seexul Xadim ñun ñëpp jox ngeen ñun ñëpp jox ngeen ñu cër boobu kon ñu ngi am mbégte di leen sant di ci gërëm bu baax a baax a baax a baax di wane ne tamit ne li nga def ci sëñ Abdou Khoudous mi ak jàngale la et tamit doo xam naa ko daaw ci bi ngay wax ci bi nga ko defee sëñ Abdou Karim ndax an mbokk tey rek defar nga ko fii maanaam lii defar dara yàquwul mais li ma bëgg wax xamale nga mbokk yu miinante wutoon ndax man miinante wutoon te tey man ak moom suñu xamante ci bis bii lay jógee dafa faaw bokkoon na lanu bokk waaye xamante gi fii la ko yàlla soxla kon ci yow la ko yàlla soxla ak keneen ak keneen ak mag ak keneen yi kon day lu am solo loo xam ne day boole fi may jeexale rek ah ñu sant yàlla bu baax di jàpp sunu taal bi te xam nga moo di taal bi ndax ñun amuñu lu dul sëñ Tuubaa te biir boo ci bokkee da koy assuré te ñun ñëpp kenn ku nekk yaa yaa ne aslamtu nafsi yaa jox sa bopp sëriñ Tuubaa ña fekkee jamono sëriñ Tuubaa sëriñ Tuubaa woowu leen asamaan ñun kon ñu ñoo ci bàyyi suñu bopp mbir nag boo ci dugalee sa bopp. bàyyi sa ci bopp da nga fexe xam la nga dugg lan la nga fexe koo sàmm ak taal bi yombul tudd ko nag yombul mais yombul ndax boo demee ci sifatu murid sa am na fu ko Seexul Xadim di waxee ne dafa mel ne néew bu ñuy sàng néew bi ñuy sàng ndax xamul ndox mi baxal ak ndox mi jóge ni loolu nag bu ñu ku ne xam na ne ca jafe na yoon yi fi mu doon ndax léegi dañuy commentaire dañuy analyse sëñ bi waru ko sëñ bi li waxee ñeent ñeent la gën yooyu yëpp taal bi dàq na ko nan dellu fa mag ñi nekkoon nan dellu fa mu fa mu ñëw nit boo gëmee ne maanaam na la loo mënul ko sa bopp mu maanaam la loo xam ne say waajur mënaloo la ko danga ko bàyyi ak sa bopp da nga gëm ne lu mu la dugal moo gën kon nan jàppal suñu taal bu baax a baax a baax a baax a baax a baax di góorgóorlu bu baax taal bi ngi ne damay faral di wax ne murid saalih moom wala mu xàddam ak yëpp bal nga ko doon faaw nga nekk jullit xàqan ba pare bu soo jullit rafetul moom configure yi boo mën a bokk mënoo jaar takk benn garab ndax confrérie benn bu génn ci yoon bu maanam benn bu génn ci islam ci amul loolu amul moom kon nag bu nu bu nu rafetali suñu diine rek confrérie ba nga bokk rek da ci daal man takk garab kon nanu ci góorgóorlu bu baax te rafetal suñuy jikko bu baax a baax a baax toj suñuy xol bu baax ndax bis la boo xam ne xol mooy nit am na sëriñ si àtt wax na ko sëriñ si di tàgg du gën loolu nit koo jàkkaarloo ni ne ko ku la gën xol amul tàgg mënut a weesu loolu ndax ilaa man atallaaha bi qalbin saliim lay amoon bis ba suñu borom du àtte jëmm yeeg yëpp maanaam xol bi rek xol bi dong wu lay àtte xol bi dong dong dong moom lay àtte kon nag nan defaral suñu bopp bu baax a baax a baax a baax fi nii fi ñu doon jeexale rek mooy ñu góorgóorlu ci suñu bopp te bu ñu ko waxee mu ngi ci suñu bopp mu ngi góorgóorlu sa diggante ak sa borom. ndax kenn ku nekk ci ñun bëgg nga ëllëg nga bokk ci ñi Seexul Xadiim di tamoo ci njabootam kon nag kenn ku nekk ci ñun faw la la koy may faaw nga góorgóorlu bu baax a baax ci ñi ma ko sañ a wax it nga xam ne ñoo bokk te ma féete leen ñu mel ne Seex Sidi mi ma ci gën a yow ñun ñi nga xam ne ba nu juddoo ba léegi suñuy loxo daarul te defuñu dara te ñi ngi faj suñuy soxla te te islam dong nga tax ci la ko suñ tuwaa jaarale ñun moom suñ njuum di war a bari suñ njuum di war a bari ndax koo xam ne sa loxo du daal te su soxla du yenn waatu wala bi du fanaan kooku war nga xam la la may loolu mbooloo bi la topp it boo doon xoolee génne génne sa bopp sëñ tuwaa bu la waxoon yaa moo dee ngay leen déedéet ñim déedéet man ngay ñime ma ko kon ñun itam ci ñi ma ko sañ a wax ñi ma féete suuf ñu góor góor bu baax defar suñu bopp ndax kuni roy ak kuni ñuy da ngay da ngaa war a ma li nga doon yàlla nañu yàlla boole jàppale ci barke Serigne di yàlla nañu yàlla nag ci ndigalam yàlla bu ñu mujjee ba mu réer li ñu seq ci mbokk mbokk nag la sëñ sëñ maam Thierno damay faral di wax ne nee na mbokk yet yi koy doxal yëpp dara du ci sax karaw ma ne la mu ne ma ak loxo ak mu moo tax tey jii rek démb laay wax dina ko dañuy dem pay pay ñun ña fa fekk ñëpp dana ñu suba yéen ñëpp na ngeen fa dem loolu la ñu wax man maa ngi kaw danañ suba yéen ñëpp na fa dem kon nag mag ñi wàcc na te ñu ñoo war a defar affaire ñun ñoo war a continuer affaire bi nañ ko continuer bu baax a baax fi may jeexale di ñaaral nañ bu léegi di sama xarit Aliou Diagne dama ko fàtte di nit ku baax sëriñ si li nga def ci baax. bari na ñoo xam ne amuñu wóllëre te li nga ko defal nii kóllëre yi. Aliou dañ koy ñaanal yàlla bu ko cat jiitu ci bàmmeelam ndax nit ku gore la woon nit ku baax la woon man de sama nit la woon nitu sëriñ la woon kon yàlla mi ko moom moom ñu jël ko yàlla na ko tàbbal aljanna bu firdaws ñu ngi baalu ak ñëpp di baal ak ñëpp di jéglu di kàddu yi lépp lu jëfee السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بقي تدي في تاو. نعجي لندنيو بجناك تدرم باكستان. جناب بنو سانتا يا رجل جيم تبي صلى الله عليه وسلم سانتا الشيخ الخديم. نعجي نعنا الشيخ محمد المنتخب. بفي الشيخ الخديم. سنو برام بايو كفتة يا دم كتر ويل كولور. defal ko njabootu Sëriñ Tuubaa gépp ak ñun taalibe yëpp di ñaanal Sëriñ Abbas Mbacke mi nga xamee na moo fi nekkal maam Thierno Ibrahima Fati ak njabootu borom daaru gépp di ñaanal El Hadj Maam Thierno ak Cheikh Mouhamadul Mokhtar ak seenu njaboot gépp di ñaanal mbooleem jullit yëpp di. sant yàlla bu baax ci tawfeex ji ñu suñu borom defal ci ñu mottali xéewal gu mag yi di jël nuyoo bu tedd nag bu jóge ci Cheikh Sidi Mokhtar mii toog jëm ci mboolem mbokk yëpp ñi fi jiitu dañ fee wax wax yu am solo yoo xam ne loo war a wax rek ñoom wax nañ wax ku ci nekk rek wax nga wax ju rafet yu mag ñi nga xamee ne ñoo weccante rajo bi di sëriñ Xarim ak sëñ Muxtaar Diop ku ci nekk it yaa ngi faram fàcce di nit ñi wax dafa mel ne wax ji lépp man na lépp leer na waaye sëñ Thierno bi doon da ko wax léegi nit ku baax wala nit koo xam ne bëgg ngaa baax wala koo xam ne yaakaar nga ne si xool baax na doon nëbbu seera soo القران دا فوخني ولا تكتم الشهاده فلان دي نوب شهاده سوره تكني ومن يكتمها فانه اثم خلقه كيب كو خامني خمغا سيري تي نيت تاموي لو باخ نغا نوب كو باني كو واخ دا لك سا خول بي دا فا ام جانغورو جي سي نك كون سي مام تيرنا مي دون واخ ليغي دا فنا سيري سو رافات سو خامني مان ماتان نا سيري تي بير سيري سو جيرجيف واخ جيرفال لول danga wax nag mboolem mbokk yi fi yëpp loolu la ñu wax di siyaare sunu wayjur bu baax wale soxna yaa xam di bàyyi fa di murid saadax boo xam man xam naa ko wér dafay dem ba Bambey di toog moom ñuy waxtaan nga xam ne bëgg Sëñ Tuubaa képp la def doxu ci la ngeen di ko ñaanal bu baax suñ borom bàyyi ko fi ba confirmation bi gën a leer moom ak dundam lépp confirmation di sant mboole mbokk yëpp rawatina soxna yu baax yi nga xamee ne tudd nañ leen fi ay yooni yoon waaye nag damay def ni ñëpp def soxna Fatou Seye donte nekk fi sax xam naa darañ ko ko wax di ndokkeel sëñ Abdul Khoudous ñii nga xam ne moom la ñuy dara jaare bis bi di ko ci sargal baax a baax ndax ab sang la jëf ju baax la suñ car na wax na ko léegi bis bi ginnaaw jëf yu baax yëpp jëf ji ci gën a rëy mooy jokk ak mbokk li fi daje ci ay mbokk xàmmente xëy na ci ab séenante tey ñu dem ba bokk benn jotaay loolu li gën a rëy ci bis bi ci la bokk ndax moom mii di si ñëpp lu xuddoo suñu dara jaare ko bis bi xam naa ko bu baax ci di ko seen waaye tey lañ mës a jotaayoo waaye man mii yendoo moom da nga xam ne li may saf ci nit mooy bëgg sëñ Tuubaa xam naa ko ci moom tey kon bis bii sëñ si tudd la dara jaale la ko wér nga a tax kon jërëjëf ñoom lañ ci ndokkeel bu baax a baax di ndokkeel mbokk yu tedd yi egg si léegi bàyyi koo fu sori te jëmmi sëñ si di tax jikkoom moo ko may du ak juddoom du darajam du du lenn lu ko may jikkoom ndax noonu la koy jëflante ak ñoom ndax yàlla dogal na képp ku suñu siidi di jëflante rek xam naa ko ci jege ak ci lu rek kon jikkoom may na ko fu mu mën a nekk ci adduna bu mu mën a wat sang yu baax yi fekk ko kon ñoom leen di dalal baax di leen ndokkeel di leen masawu ci coono yi bu baax a baax di ndokkeel mbokk yu baax yi nga xame ne ñoo fi yandoon moom tey te ñenn ñi ay yitte dab leen ñu dem ñenn ñi toog fi ba tey ñëpp menn mbooloo mi rek innahum fityatun kon ñoo leen di sant bu baax a baax di sant mbokkam yu baax yi nga xamee ne ñoom la bokkul wajur muy waa kër El Hadj Maam Cerno yi wala sax mën na maa wax ne waa kër suñu Cheikh Awa di sant sëriñ Abdoulaye Seck Mbale nga xam ne man mu Sadio laa koy woowee léegi ndax suñu xaar wax na ko fi léegi canaba la bokk amub cër suñ canaba di maam ñu xam leen bu baax ñu bokk ci dareet yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu bàyyi lépp ne wax naa la ne la bis na ko tey naa la mbokk def na xarit ndax ñun amuñ lu dul sëñ Tuubaa ku nekk nag ñi ngi tudd ay tubaab ak lu nekk ne ñëpp luy sëñ Tuubaa waaye li gën a rëy ci waaye ki nga xam ne dafa bokk ci tariixa boo xam ne dafa jëru ci yàlla amul cër bokk ci awliyaay nga ne yow seet naa lépp waaye li ma doy mooy sëñ Tuubaa kon ñun murid yëpp amee nañ leen jukkal ñun ñëpp ñu ngi jox mbokk ci yow maa ngi saraxu it sang sëñ sang yii fi nekk di sëñ sëñ Tuubaa da ko ñëpp jokk mbokk boobu amoon na sax ndax ku ne xam na ko Tuubaa waaye ngeen saraxuñ rek ñun taalibe ko ngir jëmi sëñ sant yi ci ndigalul sëñ si yi nga xam ne ñoo aju ci moom nga xamee ne ñooy jàmbaar yi nga xam ne ñoo doon taxawu bis dañu sol yére yi nga xamee ne dafa am couleur bu vert te ki nekk ci bopp bi di Cheikh Bekkaay ñoom ñëpp sëñ bi nee leen di sant di leen gërëm bu baax di rafetlu seen doxin ndax wax na ma ba tàyyi ci yéen ne li ëpp solo te gënal ko ci yéen mooy ngeen mbooloo doon benn donte ñaari nit wala ñett ngeen sax nee na seenu mbooloo rek moo ko doy kon mooy mi leen di sant di sant yi ñi nga xamee ni ñoo aju ci moom te nekk ci biir dëkk bi. wala ñi aju ci moom te wala ñi ne ñi ne ci dëkk ñëpp sax ndax aju ci moom waaye ñi ci féete ak moom nag ci jiitul Serigne Sadda ñooñu ñëpp ñu ngi leen di sant bu baax di wax ne bis bii li tax mu taxawal ko dara warula ko dul delloo ñu ko Serigne Touba ak sant ko ci rek ak dajale fi mbokk yu baax yi nga xam ne danañ ci Serigne Touba la ngir xam nañ ne fi mu nekk yërmande yàlla wàcc kon nee na loolu lañ tudd moo tax saa bu waxtu bi jotee moo indi fii ñëpp dajale. kon loolu yi nga xam ne bëgg na ko di ko taataan di ko fi indi yàlla na ko suñu jiwaa defal defal ko mboolem ku fi ku fi wàcc ak ku amoon yéene ak képp ko xam ne sax dégg nga ak ku dégg ku di julli rek yàlla na la yàlla jox ci woo di am tuuti rek loo xam ne dinaa ko def seede jëme ko ci li mu siy siide waaye bala ma ko def damay sant Sëñ Fallou Ndiaye mii ci sama wet Sëñ Fallou damaa dee léegi dama Sëñ Siidi mii nit ñi yàlla boole bari na waaye ndax xam nga ni sëñ ma bàññi ndax moom sut sëñ ma bàññi njaay sëñ ma bàññi bi sëñ Tuubaa dem ci géej gi maam Cerno la ko boole loon dama ndax xamoon nga loolu mu ne ko déedéet mu ne moom la ko boole loon muy xaritu sëñ siir bi sama xarit fu ma nekk mu fekk ko tey jii bi ma ko waxee ne ko bisub sëñ siir ba tey la fekk mu ne ci ngànt Tuubaa la départ ñu fekk sama fii mi ngi nii toog kon noonu koy sant baax moom di leen sant yéen ñi nga xam ne yéen a rajo bi sëñ Xaalim sëñ Maxtaar Diop ak sëñ Mor Gueye seere si may def ci siñ siin ci laay ubbe ci laay tëj ndax nit booy ànd ak moom ku nekk gis seen diggante ñëpp xam sama diggante ak damay wax ne sax mëtuma ci moom seere ndax ñaar mëtuñ seere ab xarit mëtu seere am noonu mëtu seere waaye yaakaar naa moom mën naa ci moom seere ndax dañoo ànd bis dem ci si Sidil Mokhtar yàlla yàlla yokki leen fekk booba sëñ Mokhtar da ko faa yónni tuuti man ak moom ak Modou Mbow. ñu doon fekk dëkk bu ñu wax dindi. ba ñaagee ñu toog Cheikh Ndiaye moo ñu ñett moo ñu ñeental ak sëñ Cheikh Baara yàlla yàlla yokki leen ñu toog ba mu yàgg. suñu Cheikh Bara daal di yeewee daal di daal di góore ñu noonu jéggi siñ si di maxtaram ne ko moom mii kat taalibe suñ Tuubaa la bëgg suñ Tuubaa la ku la bëgg sa jëm bëgg sa jëm ji la siñ si di maxtaar daal di ko xam naa ko ci moom bu wér keroog siñ si di maxtaar seer na ci moom loo xam ne ñëwuma ko si waxtu kon laay lancé ma ngi ca jannatul firdaws te loolu du benn yoon du ñaari yoon du ñetti yoon mag ñu bëree bëree bëri dañ lay dee ci moom loo xam ne du ci caaxaan rek loolu rek ci kon maa ngi foofu nga teg sa tànk doon taalibe bi Serigne Touba te bëgg te fas koo yéene nga sax ci tànk ndax fii ñu nekk ci adduna bi ak fa la ñu jëm fii maye njariñ ñu fi gën Serigne Touba Serigne Mountakha wax na ko bëgg dem nee na bëgg Sëñ Tuubaa gisul lu a rëy ci kaw suuf kon nag lay wax ne daal wax ji lu ci mën a sori foofu rek laa ci yem yoo xam ne ku fi teew rek sant nañ la na li ci turu sëriñ si ñoo ngi lay ñaanal it yal na la Sëriñ Tuubaa defar lu kawe sa njort ndax fii lu fi waay def teewee ko fi rek ñun nga ko defal kon nag ñoo ngi sant ñëpp gërëm ñëpp. ñu leral tout rek ci suñu digënté ak sëriñ Sidi mom dafa bëgg borom daaru té bëgg borom daaru moy bëgg sëriñ Touba euh, bis bi ma doon def té tuddé ko borom daaru taxaway bi mu ci taxaw dafa nek taxaway bu jéggi day bu yéme and ak dogu ak Pastef ak wane ak bëgg sëriñ Touba man nak loolu motax ma jàpp fu mu mënoon a fu mu doon ci àdduna ak lu mu xat xat xat mënuñu cee ñàkk a teew. tëggal tëggal. Euh, Serigne Cheikh Imaam dafa wax ne kàddoom da koo ci sama biir kàddu ngir ñëw sànniwaale ko ay kàddu moom it sama jëflante ak Serigne Sidi lu ko xamee rek la xam ci moom xam ci moom lu ab taalibe xamul ci moom lu bëgg Serigne Touba xamul ci moom lu nëb boppam feeñal borom daal lu moom ci la nekk. amoon nañu yéene nag yenn si fii. man ak moom ak soxna mu xayri sëñ Oumar Mbacke maam Thierno Diop waaye li tax ñu xaw a tardé tuuti mooy Serigne Cheikh Mbacke euh, dafa am seen benn taalibe bu ñuy wax Serigne Bassirou Ba dañ ko doon may soxna tey ci ngoon te Serigne Cheikh la sëñ bi yónni woon joxoon ko lépp loolu moo ñu guddeel waaye dañ fee bëggoon a yem si loolu moo nekkoon yéen ji waaye loolu moom tax comme ndigal lañ nekkoon mënuñu ko woon a bët. waaye lu mu doonoon lu dul loolu dañuy dañuy si loolu lañu bëggoon kon nag euh, ñi ngi sant ñëpp rek di gërëm ñëpp loolu sëñ Cheikh moo waxoon ma leeral ko waaye daal li wér di wér daal kontaan nañ bég nañ ci sëriñ Sidi ci doxin bi nga xam ne mi ngi koy doxi digganteem ak i mbokkam doxin bi nga xam itam mi ngi koy dox digganteem ak taalibe yi ak dox bi nga xam ne mi ngi koy dox digganteem ak sëriñam ndax nit amul lu dul kilifaam amul lu dul waajuram te sëñ Sidi waxtu woo ko woowee ci ndigalul si Maxtaar la jógee wala ci la jëm te loolu dafay firndeel ak nekk bu nekk ci ndigal te loolu mooy àdduna loolu rek itam mooy ak murit ak yu noppee jëfe ndigal rek doonatu te loolu wax dëgg yàlla képp koo xam ne waxal nga yàlla te xam rek xam nga ne ci lool nga ko xam te rek moo ci amoon solo wasalaamaaleykum wa rahmatullah rasulullah sayyidina wa mawlana muhammadin makin mbokki taalibe yi maa ngi leen di nuyu di leen sant bu baax di leen gërëm di masawu coono yi ndax ci suuf ba tey kilifa fi teew bari na lool kenn ku ci nekk jóge ci barab ñi yenn su fi dem dellu si waat ñi jotaay yu yàgg yi tax ñu di sant ñi nga xam ne ñoo doon jàng alquran tey ci suba te ay daara yi nekk ci tund yu ñu bari ñëwoon di sant jàngkat xasida yi rawatina kuréelu borom daaru moxti gi nga xam ne ñoo amoon ndigalul maam Thierno Ibrahima di di def altine jot mawlu ten yenn feek ñun yëkkati fi gis bu ak mooy bu ak mu xaatimaat ak yeneen xasida yu bari yoo xam ne dëkk bi da ko barkeeloo ñu yàgg fi tey door dem léegi di jiital ci cant gi njabootu ko laaj ma am càgg bu ma limee damay jumwaay ñëpp ñëw na fi la ko tàmbalee ci sëriñ Sidi mooy sëñ maam Thierno bi toog ak seen rakk sëñ Abdoulaye di sant Cheikh Bara Lahar Njogamaay fi lañ ñëw na fi sëñ Moustapha bu Tayba ñëw na fi moom it sëñ Modou Sidi sëñ Abdou Khafour ñoom mbooloo daal ñëw na fi moo limee damay jóg muy sëñ Moussa Sidi moom di sant sama mbokk yi doon ak si léegi di sëñ maam Cheikh Imam sëñ Makhtar Sidi sama xarit sëñ maam Thierno Bissiri sëñ Mohamed Mahfouz sëñ si Ablaye ah ak sama rakk yu baax yi Cheikh Mbacke mi nga xam ne damay tooñ rek ak sëñ Abdou Karim di sëñ sëñ Mour Mamoun Niang sëñ Maam Morom sëñ Cheikh Balla fi la yendu léegi yaakaar naa léegi la dellu ànd ak sëñ Thierno mi jaar pe Pekes di sant sëñ Fallou Ndiaye APR <laughs> wala ji Macky Sall ñu ngi lay sant baax. waaye di la masawu coono yi nga xam ne yàlla àggale na sa yéene jërëjëf di sant nag sama waajuru jigéen ñi soxna yaa xam mooy ah ak sama waajuru fi jóge léegi soxna si ak soxna Aminata soxna Oumou xëy na ñu ngi lay sant di sant sama jaam yi toog rek soxna Ndeye Diagne ñoom ak soxna Fatou Seye ak ñoom benn ak ñaar ak kii Seye ñu tuddati ah, Seye na Ndeye Seye na. ak soxna ñoom ñëpp sant ñëpp di gërëm ñëpp di sant sama taalibe bopp yi nga xam ne kenn ku nekk jóge ci bërëb waaye nag di sant waa dëkk bi waaye amul jaaxle ci ñoom nag li ma jaaxal ci ñoom mooy téye leen benn jataay ñu toog ko daal jafe na lool base bi ni mu toll aw ganu kese nekk fi ngeen nekk seen kër yi di toppatoo ay reer. mel ni da ngeen ñàkk ay reer te sëñ Tuubaa jox reer ngeen bàyyi fi def ni kenn ku nekk nekk ci boppam du fulla du fayda ñii fi toog ëpp leen leen ak itteel ñu leen gën ñàkk jot te ñu ngi leen fi téye ba baas bi tàmbale ba tey te laata ñu leen di génne ci baas bi fone woote nañ ñu ne medd ci kër yi téye leen ci jotaay daal jafe na man nag Serigne Touba ma fi indi ci seen dogali waajur dëkk pàkk bi ma dëkkee nit jóge na fi fekk Serigne Touba xomaat ba mu fi jógee fekk Serigne Touba xomaat pàkk bi dama bi ma koy mujjee jox daa ràppal kenn dëkku fi woon Serigne Touba indi ma fi sëñ Mor Mokhtar suuf la tibb def ko ci teen bii daal ne dana weex tàll daa fi indi sama doom tey jii ñii baas bi def yéen ñëpp ngeen toog seen kër yi xam naa ci seen i waajur ñoo xam ne buñ fi nekkoon fii ñu toog duñ fi jóg te yeewu ma leen tàmbale ko ci Baye Abdourahmane Diop Major Mbaye Baye Samba ñoom buñ fi nekkoon ñoom buñ toogee fi duñ fi jóg kon bu ngeen toogee ci biir kër yi nekk ci seen bopp samay naw rek toog li ngeen neexuma te dana leen du ma leen ko ni ngeen di organiser kenn xam doo aw gan ba pare gën a bëgg sa bopp gan yi fii koo fi gis bëgg na boppam kenn ñàkkul fayda ñi fi toog ñàkkuñu fayda maa leen fi téye waaye bu def du fayda boo ay ba pare nekk seen i kër fulla du fayda man nag ko am bopp laa lu mu nit def ma am waaw duma ko nëbb kenn nag ndax kenn ku du yàlla lu yóbbu fii ndigal mu fii ni de man ak ceeb laa woon dëkk ca Bawol jeunesse de Fallou ah, ma lay fal waaw kon boo ñëwee fii Kajoor sëñ Tuubaa fii kon def leen loolu seen bopp ba boole gi ma sëñ ak njaboot gi ma fi am ñu may wan fulla ak fayda ma ko waaye ñàkk fayda moom du ma ko ànd kenn loolu def leen ko seen bopp tëliwuma dara tamit ndax sëñ Tuubaa sëñ Tuubaa tëliwu dara te jeexlu dara mm-hmm. foo ne mën naa fa woote bis dajale fa mbooloo ko du jeex ñëw ngeen si ses rek moo la may dajale si si ak la ma fa daj mën na maa daje junneem fii wootee bari bi si bari moo tax rek ma woyofal ko ndax déggu leen sax sama benn communiqué ci rajo def ma benn communiqué ku dégg sama communiqué ci rajo communiqué yi fi am yéen a ko defal seen bopp waaye waxtu bu ma jógee ngir communiqué nga dajale ci dëkk diis la ma bëgg a dajale bu boobaa bu leen neexee ab siin ngeen fi am te day fees dell dëkk bi mën naa ko di ba fees base bi mën naa fees ma dajale fi njëbalu suñ tubaab yi di fi def di fi dindi kon bu mu suñ tubaab indee dañu muy fullaal faydaam loolu laay ànd ak yéen leneen moom du ma ko kooku moom na dugg ci bopp ñëpp ku fi nekkit yàlla dogal na tey boo yaakaaree suñ tubaab may si kilifa moo xam nga jëbalu ci Cerno moo xam nga jëbalu ci keneen waaye côté murit moom boo jëbaloo Cerno mooy si kilifa te fii moom maa fi borom daal kon def leen loolu suñ tubaab mm. di sant nag ñi nga xam ne dana yor euh, doxinu adduna bi fii kii représenté maire bi ma nga fee boo demee na ne maire nag béguma ci moom ndax damaa ànd ak moom ci wàllu politique am ñu ko ëpp doole fuuf nekk fi ay ministre ñu ci bari maire ma ndax jàpp ba ma jàpp ci moom sama bis bii lu mu tajje tajje mën na fee ñëw démb bu toogee ba tey yow mi fi yóbbee xéewu ma la ndax xam naa ne bu baax waaye waroon naa mën a maslaa xëy ñëw fi wala démb mu ñëw fi ne ko bëggu di sant kee maam Thierno Dieng yebal nga xam ne moo ko fi représenté maam Thierno ñëw na fii ndeysaan di baax ku am ko nit ñi am yaakaar ci moom waaw waaw nit ñi am yaakaar ci moom te bu fi ñuy wax dëgg yàlla dëkk bépp kenn ku nekk seeral ko ba tax waaye ne ko mu góorgóorlu ne Kajoor la fii Kajoor la ku dul sëñ Tuubaa rek mën na laa jaaxal waaye sëñ Tuubaa rek mënuñu koo jaaxal ndax sëñ Tuubaa daa tiim xol yi ndax nit nekk ak yàlla waaye ku dul sëñ Tuubaa rek na laa jaaxal na góorgóorlu bu baax rek te mu def ko ci am na keneen nit ku ma fi nuyoo euh, ku yor benn mouvement xaw ma nag kii Ablaye Samb maa ngi yabal nag di sant nag sama géwél yi géwél yi dëkk bi waaye di sant fi toog nag ñi ma gis moom du ma leen sant waaw di sant Iba waaw ak sama bopp géer yi ñeneen ñi nekk seen bopp nekk seen kër ma leen sant di di di sant bu baax si Abdou Khoudous sëriñ Abdou Khoudous boo gisee mu tuddale bis bi dama ko def ngir yàlla ak jëmi sëriñ Touba ak bokk yaakaar naa bu ma fàttali ko Cheikh Ousmane Mbacke li mu njëkk booleeg Cheikh Sidi Moutar Cheikh Awa ñu ànd am Cheikh bi euh, Fall la rek kon ngi si la suñu xelum sëñ Fall bi yaakaar naa moo fa waaw moo fa mujj ci kuñ ko jox ci doom yi kilifa yi ci doom euh, ci di sant nag hmm. njabootu suñu mbiru Kara Mbacké Noreyni nii rawatina soxna Oumou nga xam ne mooy taawam bu jigéen te toog yéen yàlla daf leen a yaral boppam li ko tàmbalee soxna Oumou Khayri mi ak sëñ Ousmane ba ci ki gën a tuuti ci kër sëñ mbiru Kara Mbacké Noreyni nii boo ko gisee da ngay ne dañoo dëkk ci di ko caw ab yar di ko jubbanti te yàlla xam na ne seen bàyyi bu kaata ginnaaw sax aw yoo sax mos na ko kaata seen day koo xam ne day xawa a déranger kilifa yu bare bare bare bare benn bi ci barke bi nga xam ne dañoo jàpp ne day fexe te moom dundiwu barke ndax koo xam ne boo tëjoo sa kër daanaka mën ngaa xëy ba jant bi su mën ngaa toog nangam di weer doo gis jant bi te kenn mënut a toog ci yow ba jëwloo la du mbokk du jàmm sëñ Mourou Kara mënul ko diw rek gis na jàll benn boobu muy mu yi rek waaye ci benn baat dëgg la mu ne leen daa am lu ma foogal sëñ Tuubaa du morom daal romb ñam bu suba bu ko dee xëy dajalewaat kooku ku defe ne aw ay xaala wala ay pexe xamuñu sëñ Tuubaa kon nii ko yàlla bindee te léeg-léeg muy def ay façon na neex bokk yi ten bàyyi yenn tuuma yi ñu koy xëpp xam nga mas nañ ko fee tuumaal ba àgg ci sëñ Saliou suñ sol na sax laaw mos bokk na de moom loolu la ci daal am na ci loo xam ne bu ko yàlla defee ci moom bu ko defut ci yow te nga am te am yenn jikko yi da ngay ci moom Sëriñ Tuubaa kenn gënu ko ko bëgg ba ko ci gàggante te ñu bari ko ci jéem a gàggante mënuñu ko ci gàggante ndax gënuñu ko bëgg te maamu Cerno na nga yoroon lépp kon ñeneen ñi waxtu leen dañuy faral di wax ci seen xol nam nam nam demee ak na ñuy doxee dañuy xam ne borom bokk na ay doomam a yaru rek waaye jur ñu mën a dumaa nag ay doomam kon jàkkaarloo boo xam ne seen bàyyi mën na laa duma waaye mag mooy wax dara te mu yor doom yi la mën a duma te foo waxee ñu mel ni yëguñu ko wax dëgg yàlla kooku kersa war naa tàbbi lan bañ ko di féetale fenn fi lii muy def nag moom àjjana yi àddina ak alaaxira la ko yàlla defal day dund ci àjjana yàlla yàgg fi jógee tàbbi àjjana kooku ku ko yàlla boole li amal xal bin salim rek fexe nag la njariñ la yàlla def ci moom nga fexe ba jariñu ci ndax moom iñaane sëñ ko ci sëñ bi xam naa nag seen diggante ak sëñ bi ni ngeen ko joxe seen bopp dénk ko seen bakkan waaye li ngeen ci def rek doyut ndax ni def sëñ bi waa ko kon ngeen góorgóorlu bu baax yow nag yow ñoo bokk ndey soxna yaa xam ne yaa sa kon góorgóorlu bu baax a baax a baax ñu ngi sant bu baax ndax ba ne ginnaaw suba la bis bi fi yónnee ndawal bu doy ba ne bi sa waa kër ñëw indi fi ndox du doy ca bis bi ñu ñëw indi fi ndox li defar bis bi mu doy sëkk loolu rek neex na jërëjëf di sant sëñ Abdou Karim mi ma ko tuddee woon daaw te ren bi ma ne càpp rek. mais bu sëñ Maodo mu ne ma fii sëñ bi sëñ bi dimbali ma nga yàlla def ko ndeysaan xam nga loolu bu la baax la sëñ si Assa Dieye wa shahidna ila ma'adin danga baax rek ndax ku baax rek mooy na nga topp waajuram ñu bari ci ñi yàlla defal leen la defal dana topp genn wàll gi te yoon wi moom lu ci nit bëgg ci bàyyi la koy sàkk mu bu la neexoon toog sëñ Mourou Awaale lebal na sëñ Mourou Mokhtar loo xam ne ku sëtoo ci moom bu la neexee toog te yàlla dana la dimbali. waaye boo ci boole nag tër bii bu déggal ñu ñun ñu ne mag loolu moom li nga doon lépp da ngaa baax rek sëñ Modou Mamoune Diop ngi lay sant bu baax sama xarit ñu yàgg lool sëñ Fallou Ndiaye maa ngi lay sant bu baax sëñ Mame Cheikh Imam maa ngi lay sant di la gërëm sëñ Matar Sylla gisee bi yàgg na ko waaye xame bi bi ko yàlla dugalee ay ay ay ci weer yi la. Mm. waaye ngay ko am solo. nit bu fekkee dañ ne ko gaynde la jur bu mu defaat mën a xonqali bët. sëñ Dumay Maar Sylla moo jur sa maam. ñoom ñu xawoon leen ci boromi baatin nga góorgóorlu jàngi ñëw topp loola nga ciy dimbali nit ñi baax waaye borom daraja nga ndax. ko suufee suufee boppam toog gii nga toog ci suuf la neexam toog ci kaw ndax sa maam am na ngërëm sëñ Tuubaa di gërëm nag sëñ Maamoor mi. sëñ Omar sëñ Omar couleur dafa am solo si yàq sëñ Cheikh Ibrahima Niass ma xamee ñu xamante ne moom xam Thierno Diop Dieng mais ak sëñ Mohamed Mbacke xam ne ñoo bokk ndey la sëñ Moustapha Sylla bi nga xam ne moom léegi la ma dugg ci dara woo ko mu indi ci ay jëriñ ma arrière <laughs> waaw sëñ Ablaye ci waaye di gërëm nag sama genn wàll kii dafa am solo mm-hmm. am na lettre yoo xam ne Égypte lañ ko doon bind muy jàng maa ngi moom. di gërëm sama bu ñaaw bi nekk waaw <laughs> di sant ñëpp di leen ne président Macky Sall mi yàlla teg ko am la xam nga booy bañ nit doo ko bañ ci xol danga koy bañ ngir jëf jum jëf te neexul te boobaa am nañu li si ñëpp daal loxoom da ne bu ca sori naqarlu ko. la jëlee si nga bàyyi ko ci loxol yàlla waaye nit doo ko bañ ci xol waaye nag ku yeewu la yeewu moo tax bi muy wut réew mi xeebul kenn ku mu te jàpp ne bu ko tàllalee loxo ne ko damaa bëgg a falu kooka mën na la ko ci dara da ko tàllal loxo ne ko damaa bëgg a falu président laa bëgg a doon xeebul njëkk xeebul xaaw xeebul dara moo tax bi mu demee bay wutaat نجاكم نفقني يوم نجمون بلا خوا جافي توفيق جيم امنا موي ادريس سك نيب خامنا ني دوجي سي يون موي دي سي دوجو سي رير نا دا فا گستو دونك ياو موميت بين كو سي غاني غاني اي دي ديف نتي في با يفي باتريا لا واخ سي كات نتا تو واي جاب سيغ توار دو تياخا su fekkee jébbal gi dëgg la. na jàpp deux ba. Abdoulaye Wade jàpp na vingt six ans. ñaar fukk ak juróom-benn la Abdoulaye jàpp bàyyam ne ko du ma la mënuma laa fal waaye man naa la teg ci yoon bi yoon yi mu ko tegoon muy Sëñ Tuuba. li muy wax ci Sëñ bu dee dëgg nag jamono yi moom dana soppi ko bu soppi ko nag moo di dellu fan nekkoon rek. Macky Sall nii sëñ Saliou moo ko dimbali bu wér Alaaji Baara ñëw yokk ko Cheikh Sidi Moukhtar ba sëñ Mountakha bi waaye tamit ñu seetlu ne murid yi seenub lim joxewul am réew ki yilif seenub lim seet na leen neex mu mu ñaan ko yàlla xam ne ñi ñooy murid yi koo koy fale sëñ Abdou Lahad nee noonu Abdou Diouf yëg nga ne réew mi maa sa ba mu def bëgg waaye bu fale jotee daa falu ndax kàddu sëñ Abdou Lahad ñëpp xam na ne bu doon limu murid yi Macky Sall daanu ba mu demee ba xam ne ñàkk na limu murid daa jaflu ci ki fi nekkal murid yi loolu moo ko sowee sëñ Mountakha ci moom moo ko waaye bu dul doon loolu Idriss Seck mi ne taalibe la di wax béy di sëñ bi fu mu jaar ko kon moom mooy dañu déglu waaye Idriss Seck la mu wax bu ko gëmee na nekk ak sëñ Tuubaa xam ba ci kanam ba Macky man dinaa wax ci moom ndax sama waajur xam nga man damay sikkim gersu damay yóbbaale man bu suñu waxtaan nekk rek xam naa diggante moom moom lu sama xol mën a jàpp bu suñu waxtaan waxee ci loolu laay wéy te sëñ Maxtaar fekk na ko këram mu ne ko da nga de coow li dana bari waaye yaay falu de ndax da koo teral te sëñ Maxtaar yi nga xam ne dañuy fekku di bañ te nekk ñu nekk feneen te naan ab sëriñ du ma jox ndigal mm. ab sëriñ du wax ak man ci politique mm. ak ñu umpale sëñ mm. yow nga sukk ci tànki nit ne ko jébbalaa la sa bopp àddina ak àllaaxira mu ne la adduna ji jàppal ci diw nga ne ko dama ko jàpp ndax démocratie la démocratie moom baat bi ci ci grain boo ko toppee amul boo ko tasee doo am kon taalibe yi nañ xool seen diggante ak sëriñ si ak diw ko ñëw na fi sëñ bi la seere waaye seere te ko ko defee bi la seere nga yooyu waxu caaxaan sëriñ na wax ci dox ñu at ñëpp dugg nañ ci mooy ngir ragal aw saaga war ragal aw ngañ saaga woon saaga yàlla yàlla maa ngi jiglu ci kàddu gi ko yonent bi toppee ko sëñ Tuubaa fii ba ne mbàkke mbàkke xam bu mu dee dee mën mënta jur ab sër toppati doomi sëñ Tuubaa ñaata leetar moo dugg ci keesu sëñ Abdu Lahat leetar ay saaga faaliwu la wax ni noonu ban des ci sëtam fi nga xamee ne nit ñi ñu doy waar la mooy bi doomi sëñ Tuubaa yi sëñ Saliou des ñoom bu doomi sëñ Tuubaa amatu waxuñu ko ngir bëgg yoon dañ ko waxoon ngir bu boobaa ñun kenn ku nekk mën naa balbal koo waxal ma ne li Sëñ Tuubaa rek fi nekk waaw man li ma Sëñ Tuubaa defal na fexe fexe fexe ba dem ci sëriñ bi bàyyi ñu ngeen njabootam te sëriñ bi defaloon ñu loo xam ne ba ñu koy defal booba yoon yu taxawul aca a ngi moyen ñu ab sëriñ bi fi wax ci ci fal te sëriñ si bari jàppoon seen xol dara yàlla fekk si na leen ci kon taalibe yi nañ yem ci kudd ñu rof leen ci fee ko deful day métti rek ñun suñu bi tënkuwut ci yi ñu ngi ñuy joxe man léeg-léeg ma dem ci dëkk ak mu jot benn yoon laa fa dem lan ma jox ba maa génn mu jeex te muy dund at te sama dara soppiku kon war xam ne la tax ñu sukk fa sama kanam kooku waral moo ma boole ak ñoom ñoom ba dem tubaab kon dañ ñuy ko. taalibe yii rawatina Touba Touba lépp la ko lëjal mooy sëriñ su bari sax te sëriñ boo xam ne doo xam ak cëriñam fu mu tege fu cëriñ sëriñ moom sëriñ Touba moo koy def mooy seexal sa maam wala nga bokk ci mbàkk waaye boo yëree kaale wax ñaari bat nit ñi ñu tàcc rek nga yërub mort daal ñëw kalaas sa bopp ci sëriñ doo yàq doo yàq am na ñu bari ñu ne ma liggéey. ndax xëy na suñ tubaab xëy na suñ yoroo xasida bi nga naan waaye loolu taxul biir fees kon bu sa biir feesee rek yaa yaa mu toll nii dañoo taal seen làmmiñ ba mu ci xadara saaga la sa mbokk ba nga ragal buy jóg nañ ko bu ko defee bu la gisee ne ah jéem naa ñaan nga bari bari machine yu bari doog wàllam da ngay gis ñuy xaaral xaaral seen kolo yu rëy. xool jiw rek jiw wax lu bon seen seen cubaay rek ak sëriñ def ko ay garam place la ba kañ jàpp na seen aajo dañuy faju déedéet seen aajo dafa ci loolu yi ja fajoon maam ya sañ dem yooyu mooy faj seen aajo ku bëgg aajo faju nga jaar foofu da ngay sax gone yoo xam ne yàlla ma yàlla baal ay commerçant la di gaare ak minicar naan diwa ci wërdu gaa yu set place naan diw ci woon te yow xamoo ne yàlla ma yàlla ba sa waajur bi mu ñëw ci dëkk bi forot la njëkk a jaay fu mu jaayoon forot fu Tuubaa ci kaso bi la jëm ndax koy tere te bu ko bu ko bu ko dugalee Tuubaa mu raw dem ba tabax ca terrasse ubbi ci magasin yóbbu la ci nga jàng mu ubbi la ci magasin door a bàyyi forot nga sëb bi ci alali sëñ Tuubaa gi ba pare di xas ay doom attention quand même waaw ñu ragal gi ñu bëgg ñu ragal gi ñu leen bëgg ragal te mënul ñu dara nag moo ñu yóbbee lu bari yéen sëriñu mbàkki mbàkki yi yéen seeri sëñ tubaay ñi ma leen taalibe yi juruñu leen jënduñu leen moomuñu leen sëñ tubaa leen a boole ñoom ñuy liggéey sëñ tubaa ci yéen dañ leen di nàpp rek bu ngeen bàyyee nag dëkk bi dana dem bu mu jaat kenn dootu ko rek Touba la fa xew kenn xamul lan la. suñu dëkk yii ba ci Daaru Manaan gi ak Daaru Muti la fay xew kenn xamul lan la contre ab sëriñ ci foo ko teg ci loo ko contre ah gis naa seen bi dox ci àdduna gis naa seen bi yor kër gis naa seen seen bi yor soxna rafet gis naa seen bi yor kàr-kàr ñun ba kàr-kàr ak oto amul kër gu rafet amul sox suñu néegi ñax moo daan dàq ñëpp dañ ko daan fete dañ penc mi daan dajoo fete ñu ne néegu ñax boo xam ne kenn du ko am ci penc bi wuddale xam ne ngay sol perkaal boo xam ne kenn du ko am ci pénc dama dem ba wataak ak soxna yi rafet man ku ñaaw xalaatuma ko takk ah dégg nga ma ku ñaaw du ma takk ku mu ku mu bëgg waaw. yow bu la sëñ bi ak mi ba mu jeex doo ko jox vingt cinq mille waaw ba pare bëgg ko tere yii nag te yii nag teraanga yàlla jël teraanga yàlla jël kër gu rafet teraanga yàlla la kàr kàr soxna yu rafet yi teraanga yàlla ah àjjana boo ko defee ñaari soxna yëpp juróom ñaar soxna soxna yëpp amul laaj yi te ñooñu wax na ne seenu ñàkk seenu ñàkk benn toq bu jëloon ci àdduna góor yëpp seen mën yu lay sotti ndax rafetaay duñ ko attan ñu bëgg yoo tere li ñi nga xam ne indi teewul man de du ma ko def lànk naa ba te bëgg naa a ragal rek dinañ la man bu ma ragal sama benn taalibe bu ma ragal benn taalibe keneen ku jokk feneen fas yi bu ragal ku yàlla bind bu ma tooyu loolu ay caaxaan rek la nañ dellu si ci dëgër fitu mag ñii borom daaru du mën a daaru mu ti génne ca biti suñ muraaw bàll mi def ko ñeneen def ko ñu dëngu suñ yi ñi jub suñ dëkk yi ku ko ci def lu war def ne la ajab takkal li nga yor dem ba génn seen tubaab ko ko gedd delluwaat ci mooy gi dundi laaxu xonj rek c'est le problème ñu bari bari daw laaxu xonj lañ indi tubaab ndax am na jamono yoo daa bekkoon dara amul ñëpp daw na kër kër ci ndigal suñu ablaat ñëw Tuuba ay xéwal fekk leen ñu bokk wëlbatiku di iñaani sëti sëñ Tuuba ngir lan ngir politique nit àddina defe nga ne dem ba njiitu ñëw ci dëkk nga taxaw di ko yuuxoo te fekk si sa kilifa te li muy yuuxu yi muy yuuxu rek sa kilifa nga ko dégg barabu sëñ Tuuba bi da nga xam bu màggal jotee nit ñi def jërëjëf sëñ Tuuba yuuxu di laal fu loolu mhm. te sëñ bu mas nekk ci kenn nit njariñ maanaam bu mu xam ne waxtu julli jot na rek buy génn rek ñëpp dañuy banque seen tànk mag ñu bari teguñu seen bët seen jubaa am yëngoom rek lañ nga dem ban tëral ko fee ñu ko tëral nag mu suñ xew ñu koy xew bu ñu dugg ci baat bi mel ni ay bëy loolu dara jarul da ngay seet bi leen baax ni siyaare borom seen tànk xool yuuxu yiñ ci boole rek ak coow yiñ ci boole duñ banque seen i tànk di xëccoo di ba ma xëcc ah lu doy waar la xool leen ñu ngi siyaare barabu sëñ Tuubaa bi léegi dama leen ñaari ngeen xool barabu sëñ Tuubaa bi léegi bu góor mu sëñ ñëwee ñu ubbi mu dugg boo boo boo maara seet ñëwee ca ndoxam lay taw bu yaa ngi sëñ bi gaawal ji waaye ndax fii moom jigéen ñee fi taw te fii jigéen ñi taw daanaka ñu teg fa góor rek waaye su su dëkk yi su dëkk yi ñii ñu bëgg ñu ragal ñu ngi koy toj ah borom Sëñ Tuubaa seet leen baax na ku ci xool leen vidéo yi xool leen nañ koy siyaar xool leen Màggal Tuubaa jotee ñu yuuxu yeeg coow loolu ay teggin du orma Sëñ Tuubaa dañ ko war a war nit war naa dugg ci penku jumaa yi ba dugg ci barab sëñ ba génn xatu dal mag ñi am na ñoo xam ne daawul tuñ bi sax dañ daan jàpp wala ñaan ko baax boo dee tur ku baax keeg ku tedd keeg sàng beeg yaram bi lépp li ko war mooy moom la ñuy wax dawum tudd tuubi am na ndaje moo xam ne si njaareem bi muy wax gone yi nga xam ne seen yaay dañ leen boot na sax mel na xobu garab jungu kon waaye wax si keroog da ne teg ba mu àggale kàddu sëñ bi kooku ñu ne la ñaari mètre moo dox seen diggante wala fii la jëm ci mujj nga tiim koy jëli jëli dañu xoolaat ñu ngi siyaare barab sëñ Tuubaa ñii fi nekkal sëñ Tuubaa yi tamit nañ leen seetluwaat na ñuy nee na Cerno Birahim borom daaru nee na bu ñaanee yàlla may ko bu tindoo mu tin ko jajje yoro nabba kàkku nakku kalli rakku as naa naa tiiru muuru tam tiiru gaaw ñoon topp yoon sëñ

fexe bi dëppoo ak seen bëgg. nii ñu Touba def yi tamit ñu jàpp ne xalifa suñ Touba ak cëram dugul séddoo loolu itam nañ ci bàyyi xel gis nañ ki ki mu jox dëkk bi da ko yow laa jox dëkk bi sëñ si def seen bu ko soxla woon tey du fanaan fas saasal ko sëñ si jébal a dëkk sëñ Massa Doar ñun ne ba la keneen ku fa nekk liñ jàpp ne léegi moo tax kenn ku nekk woo yëkkati sa mbagg jàpp ne dara dara dara nga Touba déedéet li jënti Touba moo toll na ndax Touba am réew waaye du kenn da boo xam ne bu ko borom soxla bu ko nangoo fi saas te ko nangoon yow mi ko ko mën a dara nag mu ci jox ab cër mi cër ba mën a toll xale bi seen jaww bi fi toog su ko nangoo yow mi ko nangoo ci yow mënuloo ko dara boo ci jëlee dara xam nga lu muy doon nga ab sondeel mu taal ak meesam ñu ñu rëy la ci kaw bu tàkkee da lay xaymaale rek te itam murid yi nan rafet ci Serigne Touba xool leen sëñ Mourou Moussa ci sëñ Saliou sëñ Saliou xam nga ne dajale ay mbiram moo tax mu mujj fi jëf ju jëf ju jëf jëf moo tax mu mujj fi Alaaji Baara dajale ay mbiram. ndax doomu Sëñ Tuubaa ju fi nekk fekk na ba mu mu koy faral suñu mbaax di la boot ak ñu naan xool ko xool ko ñeneen ah ko boo ëllëgee mu dekkee fi yoonu xëyam dana toog place bu juróom la muñ déggu ko fenn boo ma sax ñoraan ci moom sax boo amee ba am. andaa andaa jee teg tibb sëb jox keroog sëñ Abdou Aziz jàppe ci loxoom di ko yóbbu sëñ sooy dana ko ah sama ginnaaw de kii fi ma moom la moom la sëñ Bara tuddoon seexoo ko ñibbi sama mu génne sëñ Mountakha bi lu ko fi lu ko fi teg maslaa maslaa sëñ Moussa Bassirou ñoo bokk ndey ak baay musa bokk mu aw ñam bu pare sax da koy pousse ci buntu bi da koy kot kot ba toog ci suuf te kenn mënu ko yëkkati suufeen googu moo ko yëkkati tey découragé ak tàmbalee xalam. moom lu mu warut ab murit fii lépp jaar ci yoon ndeem ñi yor leneen ñu nekk ci ay pexe ñooy dox ba léegi asamaan ñu ñi yor sëñ Tuubaa ñu tudd Xaadimu Rasuulullaahi sallallaahu alayhi wa sallam am na béy bu si si sëñ Bas wax léegi laa yaxaar allaahu maa lam yakun wala ko tekkee sama borom defal na ma loo xam ne ñun ñëma njëkk amuñu ko woon ci ñi muy mujj duñ ko am lolu warna doy béy boobu mbindum seigne touba day وكل مخلوق على نبي الله سيف الله سيدنا نور رسول الله على نبي الله سيف الله سيدنا نور رسول الله سيف الله سيدنا نور رسول الله من لخيره وصالح loolu nag fii ma toog mën na fi doon ndax ñu bokk Serigne Touba mu bokk sant Mbàkke tawarkal la jërëjëf waaw ñu am pas-pas boobu rek te góorgóorluwaat bu baax ci sëriñ bi euh, jamono yi nag am na lu xew suñ fàllu ñu ngi ñaan ki jiite réew mi wolof ñaar dane ku nuy jiitoo ku nuy jiiñ ak ndëmm doo see ci yoole ko ne xamoo diggante mu murid yi jafe na ko lool benn bi ay dég-dég la ñaar lay ne ci njabootam kenn génn wax loo xam ne day dëggal njort la ni ñaaw lay ñaaw ci moom dëgg la bokk nañ tamit ci dama koy wax bis fu ma toll damay wax ne am na ñu ma jàpp ne mbirum sëñ bi néexu leen te fexe woon nan ba jaxasoog moom ci nguuram bu njëkk bi ñu ngi koy ñaan ndeen yàlla joxaat na ko day fexe ba tàqal ko ñooñu ah. ndax ñaar rek mën a mu bëgg fee jóge ci jàmm te loolu kam joxe ni daa bëgg mu wutu ko doo ngay mën a tax mu am ko te sénégalais baaxul maa ngi dem waaye jàppal jiw lu jafe la dem nekk jekki ba jeexal na jàppale ci jiw loolu réew la a waajal loolu te mboolem ñi nga xam ne doon ànd ak ñoom ci campagne bi ñu doon laaj réew mi képp ku xam ne am na lu seen diggante ci wàllu tooñ ne ko ko jéggalee yàlla ñi ko fal faloon ko ba mu jafee falaat ko bi mu ñàkkee yaakaar réew mi réewum jàmm la dara yi tamit du xew rafetal leen seen njort ne dara du xew jàmm rek am seen ceerno ci élection yi mu ne moom sëñ bi de bu timisee da ngay dem Dakar man ma dox sama sama dara jàmm rek kon murid yi nañu góorgóorlu ci sëriñ bi góorgóorlu ci jullit ci njabootu sëriñ bi fi bàyyi ci njabootu sëriñ Tuubaa bi tamit ñi ci am nun tooge nañu yéene seen moroom li yàlla dogal ci seen beneen morom da ci loo am loo xam ne faw wërsëg dugg ci faw ak jagle dugg ci sant mbàkkee taxut a seex sama am seex taxut a seex ñu seexal a seex nit mën naa juddoo fi sa kanam ëpp la doole fuuf te ngeen bokk cër ba yéene ko cër ba rek boo ko yónnee cër ba bu yàggee da koy boole cër ba yilif boole ko ko braqué jaar am am baag tolluwaay bi ñu def bu boobaa day mel ni yow ñàkk a ndax loo santaane ñu def ko. wéttilikoo gi ñuy wéttilikoo yenn mbokk yi nga xam ne tamit dañuy faral di yàq nan koy moytu ndax da ci am mbokk yoo xam ne daa am lu yàlla nattoo xam nga askan wi li ci dugg dafa bari lool moo ko askan yi yëpp ko yem famille ngay mën a contrôler. waaye aw askan akum ngir kenn mënu ko contrôler lu ne da ciy tàbbi askan yëpp la dal nag dalul askanu Mbàkke dong waaye nag benn benn ya ciy am waruñu ko àttee ñett toog jàpp seenu njàmm fi mu toll internet bi boo ci duggee ñuy wax ñu bari tax ñuy saaga mboolem ku sant Mbàkke wala mboolem ku sëñ Tuubaa seexal ñu néew nañ boo demee seen penc maam xamuñu leen sax xanaa loolu diw ma jur diw sama maam diw sama baay nga doon xam ne kon diw bërëb sàngam waaye bu dee individuellement buy dox ci mbedd kenn xamul da amul benn responsabilité kon kooku wut a lu mu wax ci internet bi wala mu wax ko ci internet bi ñuy commenté te gis nga boo commenté saaga sëriñ jàmbur waaw yàlla nattu la sëb sëriñ def lu mu commenté la ñu saaga kon sëriñu jàmbur yi ñuy saaga ci internet bi nañ ko bàyyi. ndax saagante bi ngeen di saagante ci biir internet bi di ko saagante seen seen mbokki bi saagante yooyu rek moo dem ba. ñi ngeen bëggul ñu saaga leen di nit ñu saaga te naa te ñooñu ne bu ñuy saaga saaga wala day ñaaw ndax du mu contrôlé dara fu ko tibbee la nu mu gën a moom moo leen kon internet bi nañ ci bàyyi xel buñ ci xulóotee buñ ci xulóoti ci suñu moom lu ma naqari ci mbokk mu yëngu ci wàllu àdduna damay jéggi ba àgg bu may wax ak moom de bu amee def na ma koy dóor te bu ma génnee dem sama yoon bu dee diggante sama diggante nguur gi musuma dem ne président Macky Sall may ma nangam dem mo fa yónni rek suñu waxtaan ko rek Macky Sall musu mus juróom-ñaari bi dara deful ma dara teew maa ngi àndal campagne bi ñu ma kon campagne bi maa ngi sama morom yu bëri xamuñu njariñam tax ñu topp ci moom te moo nga romb ni boo yore mbubb ne ci campagne bi nga jógee nga ko xottee fi mu sama gàmm sama mbubb mi yëpp ci campagne bi la jógee wallaay yu bëri ndigal la ci bàyyi dara dara dara lañ ko jox dana ko maire bi nit ñi léeg-léeg bala ñuy àtteeti nit dañuy bàyyi xel ci ndax leer na leen wala leeru leen loolu mooy li nga xam ne mooy wàll ko kon bu ci kanamee tuuti ñu dugg ci biir ah gan ñi xewlu sëñ maam ñoom ñi ñu docteur ñu xewlu ñu xewlu soxna si ñu gaaw ci xewle ndax nit xewlu maara sekk mi ngi ñuy agsi sëñ Gana sa xarit xaw ma xaw ma fu mu toll maara waaw ah waaw ñun dañuy dugg ci biir gan waaw. na nga na nga yëg waaw waaye de da ngaa patam patam waaw loolu da ngaa gis yooyu nga def ngay bàyyi. ngay bàyyi ban reer ci biir ñu nga xam ne ñoom nee nañ maaraase fi dégg comme ñoo doon nit ñu maaraase. ñoo xam ne ah buñ la nee xaarit mënoo jàng léegi dem. bu soobee yàlla doo jàngale waaw jàngale kay doo ko def moom bëri Mor Madina say jóge Mbour mi ngi fi euh, sëñ maam Thierno Samb mi ngi fi. sëñ Gana nee na mi ngi ñëw xanaa bu ñëwee nag yéen ñi leen woo dajale leen fi da ngeen génn déglu ah.